Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi noo ngi sant suñu boroom tabaraka wa taala di ko ñaan mu wàcce xéewal ak mucc ci suñu sang suñu yonente suñu soppe sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi comme niñ ko xamee ci lël bii nga xamante ne bii ne tullaabu aljamiat alislamiya bil madinati almunawara dañ ko baaxoo di def at mu ne fas yéene sédd ak seeni mbokk sénégalais yi nga xam ne bàyyi woon nañ leen fii dem jàngi lenn ci lañu jëlee fa ñu doon jàngee sédd kook ñoom ci diiru ay fan yu lim mu nekk ci ay programme yu wuute comme ni ñu ko xamee bokk ci programme yooyu nag ay muhaadara yoo xamante ni bii ne dañ koy amal ci lenn ci ngooni fan yooyu fas yéene ci càmbar yenn ci ay thème yoo xamante ni bii ne dafa soxal jullit ñépp moo tax tey jii insha allahu taala ñu fas yéene jàngat ak yéen benn thème boo xamante ni bii ne soxal na mbooleem jullit ñi surtout fii ci Sénégal gi ñu nekk ndax comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp al islaam bi nga xamante ni bii ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàccee ci suñu sang sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tasaare ko ci adduna bi yépp dafa nekk diine joo xamante ne bii dafa làmb mbooleem dundi wala mbooleem wet yi nga xamante ne bii ne jullit bi soxla na ko ci dund jullit bi yépp moo xam ci relation digganteem ak borom bi tabaraka wa taala wala relation digganteem ak nit ñi muy dundee ñi muy dundal moo xam ci jëflanteem ba ci ay aadaam ak i ay baaxam borom bi tabaraka wa taala wàcce ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam diine joo xamante ne bii ne da koy jubbanti la ca baax mu saxal ko la ca bon mu dal di koy jubbanti fii ci suñu dëkk bi ñuy dëkk nag comme ni ñu ko xamee dañoo bëri ay baax loolu ak i aada ba léegi-léegi ñu xaw koo jiital ci li nga xamante ne bii ne mooy diine ji ba tax na tey ji insha allahu taala dañoo ànd ak suñu mbokk suñu sëriñ al ustaaz Omar Diallo mu dikk ak ñun ci al aadaat wa taqaalid yi nga xamante ne bii ne tasaaroo na fii ci Sénégal wala ci lu ëpp ci Sénégal te mu wuuteeg sharia naka lañ koy jubbante wala ban sharia ban gis-gis la ci am ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ko fatx tijjil ko yaatal ko ab dëndëm ba mu mën a leeral li nga xamante ne bii ne mooy thème bi ba bokk jullit yëpp mën cee jëriñoo kon incha ustaad Omar tafaddal mashkuran majuuran
bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabina muhammad wa alihi wa sahbihi man wala ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli koy sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonante muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoo ngi am mbégte bu baax ñëw ci dawra bi nga xam ne arabita alwataniya li tullaabi sénégaliyin fil madina nabawiya ñoom ñoo ko organisé di ñaanal ñi nga xam ne it ñoo ko taxaw yëpp ci wàllu jàngale bi wàllu conférence yi wàllu organisation bi ndaxte dawra yombut dafa laaj daf benn sacrifice ci wàllu alal def sacrifice ci wàllu waqt ci wàllu temps def sacrifice aussi ci wàllu afkaar ay xalaat beneen bi mooy système bu am solo la tey ci adduna bi même ci jàngu li nga xam ne mooy dirasaat uliya yi tey réew yu bëri tey ci loolu lañ jëm mooy def ay magistère ak ay doctorat yoo xam ni nit ñi fañ koy ci liñ koy amee ci uslub murakkas lay doon mooy da ngay ñëw jàng ko ci benn sana wala ci sana tayn badala an namat al qadim tey loolu américains yi ñu ngi ci anglais yi ñu ngi ci daanaka Suède ak Norvège li ñu tuddee doolul Balkan tey yi ci ëpp ñu ngi ci loolu kon aduna day dox dawra njëriñ li mooy loo waroon a jàng yow soo ko doon jàngi da nga koy jàngi ay at ñu ñu ñu condensé ko contracté ko jox la ko ci un laps de temps ci ci ci fatra wajiza ñu mën la ko jox nga mën ci jàng ay téere mën ci jàng ay mawduaat yoo xam ne yow soo ko doon jàng mën na am boo ci doon taxasus dina la jëlal temps bu bari am ñoo xam ne seen taxasus la itqaan nañ ko ñu ñëw tënkal la ko jox la ko loolu ci uslub bi ñuy jàngee tey bi gën a gaaw bi mën a jëriñ doomu aadama bi tey ci la bokk tey boo jëlee li ñu tuddee tey al iqtisaadul islaami al tambirul islaami al maalil islaamiya tur yi ñu koy tuddee xasbal duwal wal qaaraat yëpp tey ci jàng bi gën a gaaw bi nit ñuy jàng tey ci taxasus ci la bokk tey mais daanaka léegi ñenn ñi tey da ngay xool 6 mois mën nga ci am magistère tey ci al iqtisaadul islaami rawatina bi nga xam ne al académie européenne di tambirul islaami moo koy organisé nekk fële ci Angleterre am fara fële ci Turquia di waaj ubbi fii fara ci li nga xam ne mooy Maghrib kon da ngay gis àdduna bi foofu la jëm mooy nit ñi dañoo gën a am intelligence wasaa'il yi gën a am wasaa'il yi pour jàng ak wasaa'ilu tawaasul gën a am loolu dafa yombal tey jàng xam-xam mais ni mu yombalee jàng xam-xam ci jamono ma zalik nit ñi noonu lañu amee ak kusur tey nit ñi da nga leen di woo kaay leen jël si xam-xam kenn ku nekk mi ngi xaar comme dañ koy basti léegi man fa ma toog laay toog du ma bouger alors que xam-xam moom xam-xam dañ koy jël ci gémmiñ imam Suyuti di wax ne fa nahwa lugaatu xaqu man talab xuz min al afwah la min al kutub xam-xam da ngay teew ñu la koy jox yonente bi alayhi salatu salaam bi nga xam ni mooy masdar ci diine ji jibril moo jëlee ci boromam ñëw jox ko mu dugg ci noppam yonente bi génnee ci gémmiñam mu dugg ci nopp saxaaba yi mu nekk li nga xam ne moom ñu di attalaqi ah da ngay dañuy dañ lay jox ngay jël te jox boobu ngay jël day nekk loo xam ne mubashara la loolu mu ëpp barke te yemut ak tamit wax dëgg yàlla ngay jël àddi sox di nga jëriñu waaye teew ci kanamu nit ki wax dëgg yàlla di nga ciy gañe barke bi jàng ci nit ki yar ak teggiin namat bi muy jàngale uslub bi muy jàngale yemut ak dara loolu moo tax ñu ngi encouragé mbokk yi ci gën a taxawal dawra yi yàlla xam na ne dawra yi tullaab yi def tullaabul jaamia li mu jëriñ kenn xamu nu mu toll yaakaar naa 93 laa ci njëkk a teew booba yaakaar naa ñi fi nekk ñu ci bëri xëy na jàngee guñ wala bu dee dugg nañ si laa ci njëkk a teew jàng ci lu am solo teewaat ci 97 teewaat ci dawra bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy waxtaane mooy bi amoon Thiès bi amoon Mbour ak bi amoon fii Fara Colobane 99 teen bi xam ne mustawa bu kawe la woon gars yi jàngale ci lu bëri ay muhaadaraat yu bëri masaayix yu bëri daanaka fekk na ñu ngi door a taxaruj bees nit ñu tullaab yu bëri jëriñu ci ñoom loolu nekkoon benn riir bu mayoon ci jamono jooju ñi doon jàng doon am ba gën a am cawarte pour dem jàngi loolu joué na ci lu bëree bëree bëri dawraat yu mujj yooyu bu 98 97 99 2000 bi joué na ci bëri ci soññu tullaab yi ci ñi amoon ñu nekkoon ci saanawiyaa doon jàng ñu xar seen tànk tubéy pour gën a jàng yëpp ne kat affaire bi kenn moomu ko ku jàng jaar fi nga war a jaar mën ngaa bokk ci li nga xam ne mooy borom xam-xam yi xam-xam nag kenn du ko force far la force mu nekk borom xam-xam tey amul da nga jaar fi gaa yi jaar mbokk yi li ñuy waxtaane muy al aadat wa taqaalid fi misani shara thème bu complexe la wallahi du thème bu yomb lu tax mooy dafa laal aljanibul aqad yi dafa am aadaat yoo xam ne yenn aadaat yi mën naa nekk shirk moo xam asgar wala akbar yenn aadaat yi mën naa nekk bida moo xam mu kafira wala mu fasiq dafa laal usulul fiq bal ci usulul fiq am na qaida al aada muhakkama ñoom dafa am baab xaas boo xam ne dañ ci muaalaja ñu tuddee al urf ak al aada kon mu laal foofu mu laal ilmul ijtimaa mu ñu tuddee la sociologie nga xam ne mooy xam-xam biy jàng phénomène société yi société bu nekk da koy jàng souvent su may wax intellectuel français yi da ngeen wax ne yéen da ngeen jàpp ni ñi jàng diine qaala allahu qaala rasul lañ xam xamuñu taarix xamuñu sociologie xamuñu ilmu nafs muy psychologie alors que yooyu dama fees dellu ci alquran parce que bu dee sociologie muy ilmul ijtimaa mooy maarifat ahwaalul mujtamaat léegi alquran ñaata mujtamaat ñoo ci nekk ñaata mujtamaat ñenn ñi dañuy juum sax di tàmbalee ci mujtamaa nuux dañuy tàmbalee ci mujtamaa nuux Cheikh Abdul Karim Bakkaar dafay wax ni al mujtamaat ci alquran mi ngi tàmbalee ci bi yàlla di nettali diggante iblis ak aadama fa ñu war a sujuuti nga xam ne mooy ca arsh jóge fa ñëw àjjana ba wàcc ci aduna kon yow mujtama yi nga am kenn xamu nu mu toll fii bu ñu lay jàngal histoire dañ naan la histoire mi ngi tàmbali ci la préhistoire la préhistoire kañ la muy maa qabla taarix maa qabla taarix kañ la tàmbali mi wa xamsin sana qabla taarix est-ce que xaqan taarix foofu la tàmbali est-ce que xaqan taarix foofu la tàmbali léegi taarix fan la tàmbali ñu ne la ci les premiers hommes les premiers hommes al awail awail yooyu duñ ci tudd aadama dañ ko ciy génne te fii mënoo wax a wax taarixiyan ilmiyan ba wane ne aadama nekkul ku njëkk ci al wujud parce que moom la yàlla wax mooy aslul bashar kon da ngay gis ni xam-xamu ilmil ijtima dëgg la ci xam-xam yu bees yi dañ ciy taxasus mais mën nañ ko génnee ci alquran parce que mi ngi ci léegi nga ñëw ci ilmu nafs mooy xam-xam bi maîtriser nit mooy maîtriser psychologue doomu aadama xam nit ki alquran ñaata nit borom xam-xam bu mag dafay wax ni Xaalid ibn Abdurahman Shaa'i day wax ni alquran ki gën a baax mi ngi ci alquran mooy yonent Yàlla Muhammad ki gën a yées ci nit ñi mi ngi ci alquran mooy Firawna léegi diggante bi nit ñaa ngi fi boo xamee gën a baax xam ci gën a bon kon ñi ci diggante bi duñ la tëb wala déet ñu ne la yow doo psychologue xamoo dara ci nit ñi ñoom ñi nga xasu ci psychologie ñoo xam psychologie loolu dafay nekk loo xam ni ay wax la yoo xam ne tegewul ñuy jàng alquran maîtriser ko maîtriser ulumu diin taxassus ci xam-xam yooyu yëpp am nañ ci nasib wallahi am nañ ci nasib kon loolu moo tax mu compliqué mooy dafa laal ci aqida laal ci usulul fiqh laal ci ilmul ijtima mais laal sax ci xam-xamu gaa yi dafa laal ci taarix ndax lan mooy taarix moo lay may nga xam aadaat yi fi jaar ak taqaalid yi fi jaar nga xam ne taqaalid mawrusa la min jiil ila jiil min dawla ila dawla min qabila ila qabila min mujtama ila mujtama loolu taarix moo la koy may kon dafa laal li nga xam ne moom mooy histoire beneen bi amul benn téere wala benn baaxis wala benn mawsuua ci aalam bi boo xam ne ihaata na jamiu taqaalid wal aadaat fi l aalam laa yujad beneen bi ñoom ñëpp dëppoo nañ xasan wala mawla ci ma ne amul benn mujtama wala qabila wala dawla ah boo xam ni mujtama boo xam ni amul aada am na moo tax ñoom dañuy wax ci seen ci seen làkk ulama ilmi ijtima loo xam ne sax boo ko xoolee te naaqut la dañ naan la ahsanu aada an laa yakun laka aada mais hal yumkin lil insan an laa yakun lahu aada aada fi l akl aw aada fi l malbas aw aada fi l kalaam aw aada fi namati l mashi aw kaza man ndax mën naa nekk nit mën ngaa nekk koo xam ne doo am ayu aada ñu ne léegi ahsanu aada an laa yakun laka aada léegi ki lay wax loolu moom ki naan la ahsanu aada an laa yakun laka aada dañ dëggu aadaat laysa aada lakin huwa nafsuhu indahu aada yoo xam ne laa yumkin xasruha moom am nay aada yoo xam ne moom mënu koo xamul nu mu toll ba pare mu ne la nit li gën ci nit ki mooy nga bañ am aada te moom am na aada kon al aada laa yaxlu minha insaan fardan aw jamaat laa yaxlu minha al ay mujtama min al mujtamaat ñépp ko am ñépp am aada léegi nag mu des al aadaat tusannaf al aadaat assiya wal aadaat al xasana aada yi dafay baax yi bon léegi milliard bi ñuy xamee ne aada bi baax na ak bon na du nit ñi ñoo koy baaxal wala ñoo koy bonal wala xel yi dañ koy teg ci charia diine mu féete kaw aada lu yàlla baaxal mooy li baax bu ci nit ñi ànd ak ànd ci mooy li baax li yàlla bonal mooy li bon ndax li gën li baax yàlla gën a xam baaxal na ko ci alquranam wala baaxal ko ci lan yonon tam mu xam li ko ci sunnaam li bon yàlla ko gën a xam ci nit ñi baa bonal na ko ci alquranam wala mu bonal ko ci lan yonon bi alayhi salaatu wa salaam wax ko ci sunnaam kon foofu mooy delluwaay bi ñuy dellu pour mën a xam lu baax ak lu bon beneen bi mooy jafe na nga fekk ñaari société wala ñaari nit wala ñaari réew yu nuroo aada yépp a ba z min alif ilal ba ilal ya te aada yi amul ci dara lu ixtilaaf luñ nuroo nuroo nuroo aada am na ñu ñu wute da gis ñaari nit ñoo xam ne seen aada ñoom fu ñu toog dañuy sex baaraam mais ni ñuy sexee baaraam bi bokkut waxtu yi ñu koy sexee bokkut bokkut kon ñaar ñu ñëw aada mi a bil mi a jafe na beneen bi mooy aada daf ci am yoo xam ni dafa nekk aadaat muakisa li nit ñi miinoon ci aada day ñëw nekk nekk axe bi moo kii jàngee Saoudia ñi jàngandoo ku ci amoon zamil boo xam ni mi ngi jóge booru Pakistan fi ñuy wax Waziristan Waziristan ñooñu ñoom waaw ci ñoom waaw ñun nii la mais ñoom waaw nii la ñoom suñ defee nii mooy naam suñ defee laa mooy nii am na ay yenn zumala yu ñu ci jàng ñii door a wàcc jaamee loolu xaw ñoo dof la wax ak nit mu ne la nii nga jàpp ne waaw lay wax déedéet lay wax fekk moom waaw lay wax mu ne la nii nga jàpp ne déedéet lay wax fekk waaw lay wax gis nañ ci ay benn benn yoo xam ni jàng nañoo ak ñoom li muy wax nii Oustaz Moustapha Sarr mën na ko seede kon aada ji daf ci am aada yoo xam ni nit ñi façon bi ñu jël ñoom nga xam ne mooy seen aada maalufa ñeneen ñi ñoom dañu am aada mu aakise ci loolu seen aada yi ñëw nekk aada bu safaanook lool loola nekk na loo xam ne lu am la aada yi nag bëri am aada yoo xam ni dafa laal pas-pas am yoo xam ni aada ijtimaaiya léegi aadaat yi borom xam-xam dañ koy séddale rawatina ulama al ijtima dafa am aadaat fardiya am aadaat jamaaiya am aadaat wa taqaalid yoo xam ne shaabiya la yooyu nag kenn mënu ko xasr ñoom li ñu jéem a xasr mooy aadaat fardiya yoo xam def nañ ci ay dirasaat ay aadaat fardiya mais aadaat jamaaiya yi kenn mënu ko xasr waaye yi gën a naqaree sax jéem a xasr wala di ko mooy aadaat shaabiya yi parce que peuple boo dem dañoo am seen i aadaat yoo xam ne aadaat shaabi la yoo xam ni benn aada bi tataw walladu minha aadaat day jur ay aadaat yu bëree bëri ci biir kon pour nga jéem ko xasr dafay jafe beneen bi mooy borom xam-xam ne nañ kenn xamul taarixu nasatil aadaat wa taxaalid laa yoraf majhul kenn xamul aadaat taxaalid yi kañ la juddu bal wujida maa wujudi al insaan dafa am bi nit amee rek la am ku koy jéem a wutal taarix ne taarix bii la aadaat ak taxaalid tàmbali yaa ngi wax loo xam ne amoo ci xam amul benn masdar bu la mën a wax kañ la tàmbali laa yujad loolu moo tax lu ma ta bàyyi xel kon loolu mooy muqaddima bi nga xam ni moom lañ bëggoon a ubbee door a ñëw ci li nga xam ne mooy niqaat yi nga xam ni moom lañ séddale waxtaan bi ginnaaw muqaddima bi muy mafhumul aadaat wa taqaalid namazij min al aadaat alxasana wa sayia fi lmujtamaci sénégali dawabit lxukmi ala al aadaat jeexalee ko al wasaaya niñ ko xamee fii Sénégal ginnaaw biñ ma waxee affaire bi yàggut waaye gëstu gu métti gisuma kenn ku ifraat bahs ilmi aw muallaf xaas ci al aadaat wa taqaalid fi lmujtamaci sénégali gisuma ko li ma ci gis mooy baxsu docteur Mourtada Gueye bi nga xam ne baxsun jadid wala mu yentashir baat doon nañ ci taamul ci yenn jusiyaat yi waaye baxs bi baxsun xadis la li ma gis mooy al mawdu muy al adad wa taqalid dukire fi sanaya baad al kutub ku demin al docteur Amir Samb al adab al arabi al sénégal yi tudd na fa yenn aadaat ci aada sénégal yi sénégalais yi ci namatul xayaat al thaqafi namatul xayaat al ijtimaai bas boo delloo ci zuhurul basatin bu Cheikh Moussa Camara fi taarixi sawadin am na yenn yu mu ci tudd moom it bal am yoo xam ne sax daf koo dugal ci shirk yenn yi mu dugal ko ci bidaa parce que Cheikh Moussa Camara shaxsiya la boo xam ne ku ko xam-xam ne mutasaddid gis naa a Cheikh Abdul Qadir Silla ci al muslimuna fi Sénégal maalimul xaadir wa afaqul mustaqbal mu tudd ci maa bayna ci safa ahda achar jëm kaw waaxid wa achrin mu tudd ci ay aadaat taqaalid muntashira yoo xam ni da koy tudd noonu rek dem xayru murattaba tamit dafa nekk muntashira daaxilal kitaab loolu mooy li nga xam ni jot naa ko gis ci diraasaat saabiqa ginnaaw gëstu ci li nga xam ne mooy mawdu bi waxuma ni amut waaye gisuma ko laa wax gisuma ku ci ifraat bahs wala mu allaf xaas gisuma ko beneen bi mooy mawdul aadaat wa taqaalid borom xam-xam lislaam yittewoo nañ ko ñu ma ko waxee sànq ci alfunun wa taxasusaat al muxtalifa boo ñëwee ci mafhum al aadaat wa taqaalid da ngay gis ni borom xam-xam xamle nañ ko xamle yu bëree bëri waaye boo ñëwee ci mojam bi nga xam ne ñun moom lañ tànn muy mojam maani al jaamia mojam boobu dafa wax ni bu dee ci wàllu aada dane hiya namatun min alsuluk aw tasarruf almuctaad alladi yatam yatimu filuhu miraaran wa takraara min geyri juhd nee na benn façon dundin la doxalin boo xam ne nit ki da koy def tàmm ko lool muy répété wu ci moom ay yooni yoon te du ci def benn coono bu koy def du ci def benn coono bu koy def ki nga xam ne dafa tàmm fu mu toog day teg la tànkam moom aada la boo xam ne da koy def yooni yoon te bu koy def du ci sonn wala da ciy sonn ah du ci sonn ki nga xam ne moom daa tàmm tëdd te du njegenaay moo loolu mooy aadaam moom buy tëdd day njege du njegenaay am na koo xam ne moom aadaam mooy foog mu njegenaay bu njegenaayiwul day am coon mais kii aadaam mooy moom fi muy tëdd wow na wala nooy na moom mën na cee tëdd bi du ni njegenaay te du ko jural benn coono bu jógee woon fii damaa tëdd fee léegi da koy defaat bu jógee fii damaa tëdd fee da koy defaat moo xam ci matelas bu noonu la tëdd wala ci basan wala ci mer gàtt wala ci lenn moom aada la ci moom boo xam ni génne wu ko te du ci am benn coono kon kooku tàmm na ko day répété wu mu koy def na mu koy defee te du ci sonn soo ñëwoon yërëm ko ne ko saa waay jëlal njegenaay njegenaay mu ne la waay jëlal li fii man tàmm naa sama nii laay doxale sama aadama parce que noonu la tàmm kon loolu mooy li nga xam ne mooy taarifu al aada bu ñu doon joxe misaal dañ koo xam ne aadaam mooy tux aadaam mooy bu kontaanee day tux bu meree day tux te li muy tux maîtriser wu ko boo ko laajoon ñaata nga tux mu ne la ko wax am na koo xam ne aadaam mooy moom saa bu xëyee pour féexal boppam nafsam pour am li ñuy tuddee al irtiyaaxu nafsi li ulama ilmu nafsi di wax al irtiyaaxu nafsi pour moom mu am ko féex mooy foog mu fen su fenul day nekk ci benn diiq benn xat-xat boo xam ne boo ko xoolee xam ne waa ji daa am lu mu bëgg a wax il faut mu wax bu ko génneewul du féex hunaaka shay fii daaxilihi loo xam dafa am lu nekk ci biiram loo xam ni da koy da koy gêner tant que génnewu ko du féex moom aadaam mooy bu fenee ci lay am jàmm saa bu xëyee foog mu génne benn fen na xam aada la ci nit ñi am ñoo xam ne aada la ci ñoom loolu almaa dañ ko diraas aada la ci moom am na koo xam ne tant que bu xëyee tant que fenul du am jàmm am na koo xam ne bu xëyee tant que jëwul du am jàmm aada la ci moom boo xam ne da bokk ci namat xayaatam moom il faut mu def ko dooru féex bu ko defoo du am li ulama ilmu nafs di tuddee al irtiyaax an nafsi wala irtiyaaxu damir du ko am pour damiram noppal conscience am tranquille il faut mu wax lu dëgg bu ko waxee nag léegi am na jàmm féex na journée bi mën naa dox ay soxlaam mën naa defi li mu bëgg mën naa xëy mën naa wàcc mën naa ko mais tant que defu ko du na ci jàmm loolu muskila la moo tax aada wolof di wax ne tàmm gaaf la wolof day wax ne tàmm tàmm laago la laago tàmm laago la moo tax nit ki booy tàmm rek tàmm lu baax booy aada woo dara rek nga doon aada bu baax loolu bokk na ci bu dee nag ak taqaalid mu fa am lu ciy dooleeku loo xam ne nekkul ci aada ci nafsul mu'jam ba tey boo fa jëlee day wax ne taqaal ak taqaalid day wax ne hiya aadatun وعقائد وأعمال وحضارة وحضارة الإنسان المتوارثة المتوارثة التي يرثها الخلف عن السلف مفردها تقليد na dafa nekk loo xam ni taqaalid suñ ko waxee moom aada day dugg ci biir aada yi ak pas-pas yi ak ay jëf ak ay doxalin ay civilisation yoo xam ne nit ñi dañ koy donn dañ koy donn ci ñi fi jiitu woon ñu mujj ñëw donn ko ci ñoom di ko jëfe di ko joxante jiileen ak jiil génération par génération ba mu bokk ci seen dund ba boo ñëwoon bu ko fi dindi am jafe-jafe loolu mooy nga xam ne mooy attaqaalit kon buñ doon ta buñ doon xulaasa dañuy wax ne kon al aada taqaalit buñ ko doon xulaas dañ naan hiya umurun i'tadna ala wujudiha bi shaklin aw bi axar mooy mbir yi nga xam ne dañoo tàmm fekk ko fi moo xam ni ñu ko fi fekkee nag waaye fekk nañ ko fi nit ñi di ko def wa yumaaris wa yumaaris al mujtama bi waayin aw bi xeyri waay société bi di ko di ko pratiquer moo xam bi ñu koy pratiquer conscient nañ ci li ñuy def xam nañ ko wala xamuñu ko loolu moom la ñuy tuddee li nga xam ni mooy al aadaat wa taqaalid fi al taarif al am al shamil léegi nag namazij min al aadaat al xasana wa sayia fi al mujtama al sénégali boroom xam-xam bi li ñuy wax fii mooy dañ naan ci bunt bi la budda min maarifati annahu laa yujad shaabun laysat lahu taqaaliduhu wa aadaatuhu alxaasa bihi amul benn shaab booy dem boo xam ne amuñu seeni taqaalid ak seeni aada yoo xam ne ñoom ñoo ko jagoo donte mën na am xaasi mustarak dig seen diggante ak ñeneen waaye am na ci loo xam ne ñoom ñoo ko jagoo waxoon nañ sànq ne aadaat yooyu mën naa nekk fardiya wala jamaa'iya wala aadaat shaabiya naam yooyu yëpp nag boo ko jëlee aadaat fardiya yi jamaa'iya yi shaabiya yi day nekk bayna aadaatin sayya wa bayna aadaatin aadaatin xasana bu nekkee nag Sénégal ñun suñu société ñun man bi may parce que bi ma koy xool kon aw ma fu ma dellu damaa dellu rek ci maydaan bi di xool ah daanaka ci laa fanaan dem damaa toog ci maydaan bi rek di xool aadaat yi nga xam ni jéem naa waxuma mën naa koo jéem a xasar mais mën naa koo jéem a tudd ko am si la bokk na ci yooyu aadaat yooyu nga xam ne aadaat sayyi ala xaasatan fi ljanibi al aqadi mooy at tawassul ila allahi bil amwaat loolu aada sénégalais la mooy sénégalais bu ñu nekkoo dafa am ko faatu dee fii nekk insaanu saalih wala yu bu ñëwee ci bàmmeelam foog mu tawassul fa foog mu ñaan waaji ki faatu dañ ko war a ñaanal yàlla yërëm ko ki nga taxaw ci kanamam yëgul ne yow taxaw nga xamu la nga taxaw di ko ñaan mu fajal la say soxla te moom xamula yëgul na sax du jàggi dund yow wala da ngaa dee loolu aada sénégalais la beneen bi mooy itixaazul wasail awil wasait baynahum baynahum wa kooku aada sénégalais la ci aljaanibul aqadi mooy jàppal nit mënoo dund te amoo wasila wasila mooy koo xam da nga koy samp ne moo lay àggale ci yàlla te moom boo demee àggul balay àggale loolu aada sénégalais la te yàlla sax kenn du àgg ci moom donte mustalax boobu àq dijan dañ ko war a xool ndax yàlla dañuy àgg ci moom boo xoolee quran li ma wax wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib baatu jegalee jëfandikoo wa maa taqaraba ilayya abdi ahaba ilayya mimma aftaratu mimma aftaratuhu alayhi sama jaam amul lu ma gën a mën a jege ginnaaw farata yi mu def naafila yi kon suñu borom dañ koy jege mais mustalahu ne dañuy àgg ci yàlla kooku mustalax suufi baxte la te suufi al batini yoon sax nag loolu moo tax lu jar a taxaw seetlu baatu àgg ci yàlla yàlla duñu àgg ci moom yonent bi alayhi salaatu salaam sax jasadiyan ci al isra wal miraaj àggul ci yàlla dafa dem ba jege ko yem ci sidratul muntaha borom bi di wax yonent bi di tontu li awwali marra bi duuni jibril jibril néew fa bi duuni bi duuni waasita kon suñu borom moom dañ koy jege al islaahaat li nga xam ne ñooy yi rot ci sharia li gis ko ci texte yi mooy jege yàlla dañ koy jege dañ koy jege bil amal wa taat bil amal asaliha wa taat ku la gën a jege def jëf yu baax gën laa jege yàlla ku la gën a mooy yàlla gën laa sori yàlla kon àgg ci yàlla moom mustalax boobu mustalax bu ñu war a xool beneen bi mooy sénégalais bokk na ci aadaam ci wàllu pas-pas mooy taaliqu altamaim wal qurun amamal buyut wal dakakin wal makatib mooy wékk ay béjjën ci sa buntu kër ñaata buntu kër ngay romb fii ñu wékk ci béjjën kooku aada Sénégal la wékk sa buntu bitik béjjën wékk sa buntu bureau béjjën te jàpp ne dalay aar ci cat dalay aar ci làmmiñ dalay protéger dalay musal bal ba ci biir oto li koo xam ne day jël béjjën wékki ko ci oto te moom miy def loolu fàtte ne na béjjën bi ci bopp nag la jógee wala bopp xar boo xam ne xar bi ñu koy rey ci béjjën boobu lañ jàpp daaneel ko sax protéger wu ko fàtte na loolu xam ne bi ñu koy rey ci béjjën bi lañ jàpp daane ko mu mu faatu mu mu daanu ñu rendi ko béjjën bi protégé wu ko mu daanu bañ rendi ko moom mu ñëw di protégé béjjën bi protégé wul borom maanaam borom muy xarmeeg nag mi ñëw di protégé jàmbur fàtte na loolu loolu bokk ci li nga xam ni aadaat sëyi ala ci li nga xam ne mooy aljanibul aqadi bokk na ci aussi mooy yenn yi sénégalais yi yaakaar bu ñu yaakaar ne képp ku nelaw gént boo yeewoo dangaa war a saraxe kan moo wax loolu fu mu ne ku lay laaj danaa la man damaa géntoon nàngam lan laa war a saraxe waaw wax ji mooy kan moo wax ku gént da ngay saraxe yonent bi ñaata yoon la gént saxaaba yi ñaata yoon lañ gént est-ce que saraxe nañ mais fii dafa am ñoo xam ne seen marché ci sarax lay dox comme waa ji nga xam ne dafa nekkoon ci benn dëkk di jaay soow yeewu ne nit ñi waa dëkk bi yëpp kenn ku nekk foog nga saraxe fukki mboos fukki mbuusu soow fekk na moom moo fi yor place buy jaay soow bu nit ñi riiree wuti place am soow mi jeex kooku commerce buy dox loolu moo tax sénégalais yi bokk na ci seen aada mooy sénégalais bu gént xanaa illa man rahima rabbukum mooy ñu am waaye diine ñu jàng diine ku ci gént day jàpp ne daa war a sarax maanaam dañoo rattu diggante al xulmu wa sadax gént ak sarax ku gént daal da ngay sarax ku wax loolu yàlla wax ko yonent bi wax ko li yonent bi wax mooy boo géntee mu nekk lu bon boo yeewoo musul yàlla seytaan ëf sa côté càmmoñ ñetti yoon te bu ko waxee borom xam-xam yi am na ñu ne ku demee ibnu usaymin sharh riyadu salihin bi sharh nee na mën nga koo wax ñoo wóolu parce que bu ko waxee ji bañ mu tasaaroo la mais su fekkee ku mel ni sa yaay wala ku mel ni sa papa wala ku mel ni sa soxna nga xam ne ci yéen lay yem su boobaa laa baas kon loolu la ci sunu jàngale jeex na su fekkee li nga li nga gént lu baax la nga ñaan yàlla mu xëccal la ko jeex na waaw léegi yow foog nga dem sarax moo tax sarax dox Sénégal sarax parce que fii li ngay def ñu naan la sarax yi daa bëri moo tax fii Sénégal mu am yalwaankat yoo xam ne dañuy xëy di yalwaan di dund dund gu neex goo xam ne yow bi leen di sarax dundoo ñoo la gën a neex ceeb gën laa neex lu ñuy lekk ëpp la xaalis argent de poche bu ñu yore loolu lan moo ko waral mooy sarax yu bëri yi ñuy digle boo géntee da ngay saraxe boo feebaree saraxe sa doom buy bu def concours saraxeel booy wuti visa saraxeel booy labat soxna sax saraxeel saraxe saraxe moo tax réew mi sarax rek foo romb tey suba teel am na kuy saraxe mbiskit kii sondeel kii mi ngi saraxe ay mbuusu gerte kii mi ngi saraxe ay nen lay set sax ak puso réew mi dañ koy saraxeel lay set ak puso dañ koy saraxe ci réew mi di Sénégal wallahi bokk na ci ba tey aada yooyu ci aljaanibul aqdi ba léegi mooy ñu bëri sénégalais yi yaakaar bu ñu yaakaar ne rendi rendi ginaar rendi xar rendi béy rendi nag rendi kanaar rendi naat rendi pitax yooyu mën na laa xëccal njëriñ wala mu dàqal la mooy jalbu nafi aw dafa dóob mën na koo def mën na laa xëccal njëriñ wala mu dàqal la ba tax na day koo xam day ñëw tabax këram gu bees buy toxu si day rendi xar wala mu rendi béy wala ginaar wala kanaar ak saraxe nga gis koo xam ne fii am na ci ñoo xam ne bu ñuy tukki dañuy saraxe buñ ñibbisee dañuy saraxe parce que yaakaar ne sarax googu daf leen di protéger da leen di aar seen doom buy tukki tey tukki dem benn réew liggéeyi dañuy dañuy génne sarax loolu bokk na ci li nga xam ne tey loolu jafe-jafe la ci dëkk bi bokk na ci ba tey mooy bokk na ci aada sénégalais yi nga xam ne moom cirque la mooy néew na nga gis sénégalais bu majeur fii ci réew mi majeur di góor di jigéen te takkul téere ci ndigg li takk ko ci doole ji takk ko ci baat bi wala bu dee jigéen takkul téere ci biir bopp néew na dañoo dem ba def ko aada parce que xam nga du diine dañ ko jàppee aada ba aada googu dem bañ jàpp ne sax ci diine ji la bokk boo ñëwee dinañ ko tere yow li ngay wax day bizarre ci ñoom li ngay wax wax ju wax ju raar lay nekk ci ñoom loolu bokk na ci li nga xam ni aada la joo xam ne sénégalais yi dañ koy def mu aju ci wàllu pas-pas mbokk yi bokk na ci aada yéeme ci sénégalais ci wàllu pas-pas nga xam ne ñoom sénégalais yépp seen jatu lam mi la nekk mooy waat ci keneen ku dul yàlla wala du aada sénégalais koo fi waxal bala ngaa pare mu ne la barke diw alxalif bi xayrillah bokk na ci ba tey mooy di dimbaliko ak di xettalikoo ku dul yàlla ci mbir yi nga xam ne yàlla rek lañ ci war a xettalikoo Sénégal bokk na ci seen aada ci wàllu wax mooy bu neexee yàlla ak diw bokk na ci aada sénégalais ci wàllu pas-pas nga xam ne pas-pas la laal te da koy tere aada yu bon la bu araam la mooy koo fi wax mu ne la bu lay laaj danaan la sarax ma ci barke diw may ma ci barke diw loolu ci aada sénégalais yi nga xam ne dafa laal pas-pas doon lu yàqu bokk na ci aada sénégalais yi ci wàllu pas-pas doon aada bu bon mooy soo waxee ñu ne la yàlla xool lay xool yàlla xool lay xool ba tax na nit ki day def lu ko neex soo waxee mu ne la ah yàlla xool lay xool yow xamul nekk sama xol yàlla xam ne nekk sama xol mais li ne ci xol bi moo feeñ ci biti li ne ci xol bi moo feeñ ci biti bokk na ci mooy dañ lay wax naan ba tey aada sénégalais la mooy yërmaande yàlla dafa yaatu sénégalais fii da ngay fekk ku julliwul nga ne ko saa waay ñàkk julli dafa garaaw de mu ne la non yërmaande yàlla dafa yaatu gis ponk lum jëmm du woor saa waay ah lu tax wooroo mu ne la boo yërmaande yàlla yaatu na yéen yéen a soxor rek ak bëri wax yàlla yërmaande bi yaatu na ku lay wax loolu fàtte na fa sa aktubuha lilladina yattaquun inna rahmatallahi qaribun min annas al aadat asiya léeg-léeg mën naa dugg ci xëy na al mubaaxaat mais am na fu muy àgg day nekk sayya te sénégalais yi nag dafa dem ba léegi kii booy xool société bi nit ñi dañ ko tàmm mooy al muqaataa asna al xadis da ngay wax ak nit balaa ngaa pare mu dagg la non saa waay da nga may déglu déglu ma saa waay déglu ma déglu ma xool leen débat yi am ci télé yi débat yi débat yi télé yi télévision yi kenn du déglu sa morom kenn du déglu sa morom kenn ku nekk day wax saa waay dig ma déglu dégluwuma la yaa may déglu dégluwuma dégluwuma la coow li ne ko booy xoloog nit kenn du déglu booy expliqué saa waay bala ngaa pare mu ne la noo taxawal dama lay dagg saa waay bu ma dagg dama lay dagg coow li ne ko loolu bokk na ci tey aadaat say ay am ci sunu biir mooy almuqaataa asna alxadis bokk na ci mooy qadiyatu ixfaad albanaat maa wujudi ictiqaadat muxaalifa lilshariati fiiha mooy mbirum xarafal jigéen loolu ni ñu ko xamee loolu aada la ci ñun Haalpulaar yi Tukulóor yi aada la ci ñun aada la ci suñu mbokk saraxule yi aada la ci pël Fuuta yi ñoo ko gën a pratiqué ci Sénégal loolu ñëpp xam nañ ko mais bu yemoon foofu rek amul muskil parce que xarafal jigéen ci sharia aqallu daraja ànd ak ne am na ixtilaaf yasiir fiqiyan mais aqallu daraja mooy shay'un mubaax xadiis Ummu Haani mi ngi fi yonent bi alayhi salaam dafa ñëw fekk leen arab yi ñu koy utiliser mu ne leen defee leen ko nii loolu lan la taqrir la iqraar la alayhi salaatu wasalaam bal tawjih wa irshaad kon alayhi salaatu wasalaam ilqaa na ci nazar mu waafaqa ko kon sharia digalewul ne jigéen nañ ko xarafal terewul ne jigéen nañ ko xarafal ki ci am soxla mën na ko def waaye na ko defee ni ko sharia jàngale jeex na wala déet mais dafa am ci ñun ñoo xam dañ cee am ay itiqaadaat ci yenn qabaayil yi fii xarafal gi ñu xarafal jigéen dañ cee am ay itiqaadaat yoo xam ni ñu nekk Haalpulaar te sori ci pulaar bi wala ñu nekk Saraxule xam nañ li may wax léegi pas-pas yooyu nag bu ci amee moom day day day day romb mu baax waaye day dugal nit ki feneen bokk na ci mooy ci Sénégal société bi jeunes yi ci jeunes yi xale yu góor yi ak tadxiin alaamatun li rujula mooy tux day wane ne yow góor nga boo nekkee xale bu góor tuxoo ko sax da ngaa yambare léegi da ngaa yambare ko da lay naqari foofu nga dem wut benn meego ñëw tux ci kanamu gaay yi pour wane ne yow góor nga loolu tey jeunes yu bëri loolu mooy seen mentalité bal nekk na aada ci ñoom bokk na ci aadaat alijtimaaya asiya mooy alxuruj ma al mara li fatratin tawila qabla tazawuji biha sénégalais yi tey xale yi lu ci bëri tey balaa ngay takk jigéen da ngay ànd ak moom di génn loolu nag bu yemoon ci awaamun naas xeer mais dafa mel ni yatasarrab ila naam yéena ko àggale léeg-léeg nga dégg ci loo xam ni sa karoo bopp day taxaw wallahi alazim xam nañ ne aada sénégalais la ba suñuy maam ba léegi ñun li ñu xam mooy nit su bëggee jigéen balaa mu koy takk ñu sëy dañuy génn bal ñun bi ñu nekk xale dañuy gis xale bu góor ànd ak ku jigéen ñu ànd di génn di dem di dox wala ku góor gi ñëw seen kër mu koy tegal ataaya di ko jox njar suy ñibbi mu gunge ko boo laajtee ñu ne la da koy labat takk ko da koy labat labat rek loolu lépp di xew loolu aada la fii Sénégal wala de wala yéen gisu leen loolu wala amut li may wax su dee ay xayaaliyaat la ngeen wax ah am na am na am na ay gox yoo xam ni boo fa demoon ba léegi nii kay ku dem Saalum Saalum Saalum yi xaw ma jolof jolof yi nag waaye ku dem Saalum ba léegi da nga koy gis dëkk àll yooyu dafa tasaaroo dañ koo xam ne day labat jigéen tàkkusaan day ñëw teg baam teg la ay tànkam di xaar ñu tegal ko ataaya des fois ñu yëkkal ko añ yóbbul ko loolu charia mënul dagan charia aada ijtimaai la sayya parce que li ci mën a xew ci ay yàqute dafa bëri bokk na ci mooy ci aarab ijtimaaiya yi taqidul mahr li mablaxin muayan inda baadi l usar wa baadi l masajid mooy yenn ci famille yi ñoom dañuy tënk can ne ñun can gi lii lañ ko tënk te charia tënkul can da ko bàyyi mu nekk shay'un mutlaq al mahr yàlla dafa wax rek wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla yem fa yàlla waxul na muy toll doonte ci mazhab Malik ñoom dañuy wax rubu dinaar ak yeneen ak yeneen ñeneen mazhab am ñu gis mais li wér mooy gayru muqayyad bi mablagin muayyan léegi fii da ngay ñëw fii Sénégal ñëpp xam nañ ko am na fii ay qabail fii yoo xam ne munoo takk seen doom te respecté woon léegi yow boo ko amul nag du nekk dara ah soo ko amul du nekk darar darar la te ab dararu yuzaal borom xawaayit fiqiya yi ñoo koy wax ab dararu yuzaal alaysa kazalik ah tey boo ñëwee ci yenn jàkka yi yéen da ngeen di waxtaan ba d'accord yaa ko jigéen ki ak fameem war a maye jàkka ji ñëw ne déedéet ñun suñu jàkka joxewul noonu de jàkka ji mooy fixé can loolu aada la fii ci yenn jàkka yi léegi can kan moo ko war a fixé jàkk moo war a fixé can mahar jàkkaa koy fixé wala waxtaan la war a nekk diggante ñaari usra yi kii takk ak ki ñi may loolu moo jaadu mais fii am na jàkk yoo xam ne yéen bu ngeen demoon yaa ko jigéen ki say waajur dem fa ngeen waxtaan ba tënk bu ngeen ñëwee jàkk dana la non loolu moom na xool lu mu ko jox suñu yoon néew ci mais jàkk ji moom can fii ci jàkk ñun lii la ñuy maye lii la ñuy maye imaam dañ koy jox nangam nangam mooy dem ci keesu jàkk ji te li jaadu woon mooy yéen li ngeen waxtaan ba d'accord ci mahri bi ngeen ngeen su ngeen ñëwee jàkk ñu weelu ko li nga àttan nga yëkkati jox jàkka ji wala nga bàyyi ko ci keesu jàkka ji xam nga loolu moo jaadu woon mais dafa am ñi foo xam ne fi dañ koo ilzam gis naa takk boo xam ne gars yi dañoo mujj gedd jóg dem ci kër ga mayee ko fa loolu loolu mujjul nekk dara dara lu yusaal Cheikh Sakho yaakaar naa noonu la ah tey kon loolu dafay nekk ci al aadaat wa taqaalid al shaabiya wala ijtimaa yi nga xam ne sayi ala bokk na ci mbokk yi ba tey ci aadaat yooyu mooy ictiqaadu kathir min alsénégaliyin ann alxaala huwa man yatawalla tazwija fi l usra sénégalais ñu bëri dañoo jàpp ne ndijaay mooy maye loolu charan wérul kii maye ci charia côté bàyyi la war a nekk mais du côté yaay léegi li mën a am mooy bàyyi ji nga xam ne mooy wali moom mu joxe wilaaya gi joxe joxe wilaaya gi mooy mu ne jox naa ndijaay wala jox naa sama rak wala jox naa kenn na maye mais fii tey Sénégal usar yu bëri tey ci wolof yi soo demee di fa la ba dañ naan la demal seeti ndijaayam diw su nangoo ñu maye baay ji day noppi de baay ji du wax lu am kàddu te li jaadu mooy ndijaay mënta maye ci sariya lu dul baay ji moo ko jox wali bi moo ko délégué mais fii aada ñu bëri la mooy ndijaay mooy maye boo ñëwee ji la ba seeti ndijaayam lañ lay wax seeti ndijaayam ndijaay ji moom danaan man su ma d'accord jeex na papam sax du ma ko tàggoo ah la nikaaha illa bi wali wali bi foofu bi nga xam ne mooy mooy dugg ak duxulul awwali wal ab mooy papa loolu alkaasaani wax na ko ci badaa wa sanaa moom foofu leeral na ni ñu bëri fii dañuy mu xaalafa topp seeni urf ak seeni taqaalid ba al ab nga xam ni bu ñuy wax al waliyu wal maani al awwal dañ ko jox itibaar jox itibaar ay aadaat ak ay urf ak ay taqaalid maxalliya teg ko ci fawqa ak nusuus nusuus sharia kon loolu bokk na ci li nga xam ni lu mat a bàyyi xel kon fii ku fi labat fexeel ba pàppay ndaw si d'accord ah bu pàppa ji délégué di jaaja baax na bokk na ci mbokk yi ba tey mooy jigéen ñi fii Sénégal jigéen ñiy sëy am na aada bu ñuy faral di wax ci làmmiñ di ko jëfe ci di ko jëfe it naan àjjanay jigéen jëkkër wala déet jigéen lu mu def te mu neex jëkkëram dagan na ees jigéen boo xam ni daana xaw a góorgóorlu sax léeg-léeg ci diine jékki-jékki di sëy ka muy sëyal amaana dundul diine waxee ne waa ji am na matériel ñu dem tuuti mu commencé leeral di ko jékki-jékki gis ko commencé muy commencé chocolat nga avancé tuuti lan la mooy jëkkëram moo ko ne yow boo xeesoo nag nangam ak nangam mu ragal jëkkër ji wuti ko xees mu commencé di leeral leeral lay tàmbalee te leeral boo xee mu ne non xeesalu ma ne damay leeral rek waaw baax na bu jegee ci leeral bu yàggee mu xees boo ko nit ñi laajee sa waa yow léegi yaa ngi xeesal de soxna si mu ne non sama jëkkër ko bëgg sa jëkkër ko bëgg sa jëkkër daa bëgg xeesal yàlla bëggul xeesal nga tànn ban ah ban ngay tànn da pare naan àjjanay jigéen jëkkër déedéet ajjanay jigéen yàlla ajjanay góor yàlla ajjanay jigéen yàlla la ajjanay góor yàlla la ajjanay jigéen du jëkkër jëkkër yëpp ajjana dañaa wax ni boroom xam-xam yi yi ñuy tudd ci asbaabi as asbaabu duxulil janna sabab yi mën a dugal nit ki ajjana boroom xam bi ko tudd alimaam Ibnul Qayyim am na yu mu ci tudd alimaam Tii bi am na yu mu ci tudd yooyu bokk na ci mooy topp sa jëkkër bokk ci asbaab yi la ci asbaab yi la mais nekkul ne ajjanay jigéen jëkkër mais ni jëkkër moo yore caabi àjjana wala mooy moo yore garantie bi wala certifié na ba pare boo ñëwee rek da ngay dugg booku wax ju yàqu la bokk na ci mooy ci aadaat ijtimaa yi nga xam ne aadaat sayi ala mooy alxalwatu ma al marati al ajnabia fii Sénégal jeunes yi defuñu ko problème léeg-léeg sax yenn paay toog ak jigéen yéen ñaar ngeen wéet léeg-léeg ngeen wéet ci bërëbu liggéeyukaay bi yéen ñaar kese ci bureau bi yéen ñaar di waxtaan xaqataay ila axir yi léegoo léeg ngeen wéet yéen ñaar ci biir kër gi ah léegoo léeg yéen ñaar ngeen toog ni ñuy dem ni ñuy dem ba nga yëg ne yéen ñaar rek fi des wéet kenn ci yéen ñaar du dem bu nit ñi bu ngeen nekkee ci mbooloo nit ñi di dem di dem ba nga yëg ne yéen ñaar a fi nekk lu xaraam aw na xalwa am na léegi góor ak jigéen suñu ñaaree seytaane moo leen ñetteel kooku xadis nabawi la léegi loo war a def mooy waroo xaar yéen ñaar ngeen di wéet mais nit ñi tey dafa asbaha aada lakin aada aadiya xatta nag dafa mujj nekk aada boo xam ne aadi hakaza boo ñëwoon di ko wax sa waaye da ngeen a métti nag yéen a métti loolu la ciy tegal bokk na ci mooy ci aadaat yooyu nga xam ne aadaat ijtimaai la sayia mu tasaaroo ci al bia sénégalia mooy al ixtilaat ma an nisa biñ waxoon sànq fi l buyut fi amakin al amal fi l aswaq wal julusu maahunna bal asbaxat min al aadiyat al mustaxsana inda al kasir mooy toog ak jigéen yoo xam ne daganuñ la yow góor léegi nga gis pum ab góor cundum jigéen ñi wër ko mu toog seen biir di waxtaan te fii bi ñuy foo bu njëkk temps xale dana wax jigéen ña ci jigéen ña góor ña ca góor ña kooku aada bu baax la woon fii mais léegi ñi nañ ko léegi jigéen ña góor ñi la mais góor bu toogoon ci ay jigéen di foo ay moroom ñoo ko fay fekk ne ko yow da ngaa jigéene xas ko mu jóg jigéen bu toogoon ci ay góor di foo dañ ko ay moroomu jigéenam ñoo ko fay fekk xas ko góor ña sa góor ña jigéen ña sa jigéen ña mais léegi jigéen moom balaa moo jàpp ne moom derrière la mu fekk ay xale yu góor yi toog mu dugg seen biir góor balaa moo jàpp ni góor la mu fekk xale yu jigéen yi toog moom mu wañe ne guerrier la ñoo toog seen biir di waxtaan fekk ñàkk fayda beneen bi mooy tàbb ci bàkkaar aada bu bon loolu da ngay romb ci buntu kër yi di ko gis di romb ci marché yeeg place publique yi ñuy toog toog ak koo xam ne dagganu la du sa maxaram du sa sœur du sa yaay du sa maam ah du sa jabar nga toog ak moom jaambur la ci yow kooku daganul bokk na ci ba tey mooy ñenn ñi du ñu sëy du ñu sëy ci yenn famille yi wala yenn qabaa'il yi fii Sénégal doo du ñu sëy maa tawaffuri shurut an-nikah mën-mën bi am na albaa bi am na mooy almaal mawjud as-sihha al-badaniya mawjud ñaar yëpp ñu ngi fi soo leen laajee ñu ne la sama mag tàggul soxna amaana magam dafa am ngànt amaana moom ni mu paree ci côté alal mag ji paree bu ko amaana magam day waaj amaana amaana mais fii am na ci ay qabaayil yoo xam ne boo fa nekkee sa mag bu takkul soxna te yow nga ëpp ko imkaaniyaat da ngay xaar ba keroog muy takk kooku aada sëyya la ndax bu yàggee fi mu la mën a tàbbal mooy ngay da ngay wàcc yoon bi dem njaalo ji wala nga tàbbi foo tàbbi nafsul sëy axe bi am na ci jigéen ñi am na fi qabaayil yoo xam ni soo ñëwoon bëgg seen doom dañ naan la mën guñ koo maye parce que magam sëyeegul magam séyegul su boo fekkee daal yàkkamti woo nga xaar ba magam séy ñun loolu mooy suñu aada loolu mooy suñu aada ñoom dañuy jàpp ñàkk teggin ak ñàkk worma ci jigéen njëkk a séy magam wala xale bu góor njëkk a takk magam soxna est-ce que loolu sharia la ah déedéet te aada boobu li mu mën a yàq ci muccamaa bi dafa bëri bokk na ci ba tey ci aadaat yooyu mooy lii ñun siiw fii ñun Sénégal mooy bu heure ndab jotee bu heure añ jotee ñu boole góor ñeeg jigéen ñi ñun ñu bokk di añandoo ci benn bool kooku dafa mu xaalafa sharia boroom xam-xam yépp dañ cee àddu boroom xam-xam yépp dañ cee àddu dañ ko tere loolu ibnu farxun al maliki am na lu mu ci wax al wansharisi ci yaakaar naa miyaarul meeyaarul mu'rib am na ñuy jàng meeyaarul mu'rab wax na ci wane na ci aadaat ahlul maghrib la mais ci al aadaatu sayyi ci la bokk kon loolu lu ma ta bàyyi xel la li jaadu mooy sharia moom li mu bëgg mooy jamaa su fi nekkee ay góor ak jigéen ñu ber la ixtilaat bañ a am loolu mooy qaayida bi nga xam ne sharia ci lay dox bokk na ci ba tey ci aadaat yooyu mooy fii Sénégal bokk na ci loo xam ne nekk na aada bal sax xaw a nekk rasmi mooy dañ lay forcé al ijbaar ala rushwa inda al baxsi an baad al awraq rasmiya fi baad al idarat dañ lay ijbaar far la force nga tàbb ci rushwa corruption soo fi jógee di wuti yenn kayit yi booy wuti permis dañ la obligé nga def rushwa certificat de nationalité su bëggee mu gaaw rushwa passeport rushwa sa carte d'identité bu réeree dañ lay taasib fii dëkk bi dañ lay mbugal boo amul xame ci idaaraat yi foog nga jaar ci rushwa soo moytu loolu lu doy waar dañ la koy force dem na ba nekk aada des fois da ngay ñëw dikki ñu ne sawaay yow yaa fi yàggal sa bopp ah jaaral fi nit ñuy jaar jaaral fi nit ñuy jaar mooy amul loo joxe loolu daanaka nekk na aada ci idaaraat Sénégal bi bokk na ci ba tey mooy ictiyaadu raqs fi lmunasabat al ijtimaia bal taxta taxta almusamma aw taxta taxta naam taxta almusamma diiniya min alkibaar alanan bi mar aljami mooy mag muy fecc góor wala jigéen ci li ñu tuddee almunasabat al ijtimaia moo xam ngénte la wala céet nga gis mag muy fecc kooku aadale fii Sénégal tey ñaata nga gis yu réseaux sociaux yi mag muy filmé muy fecc léegi moom mag nga mu xamul ni lii day des fii ba bu kenn xam ay sëtam sëtaati sëtaati sëtaatam di ñëw ñu ne seen maama doon fecc mi ngi nii di pàkkar ñu yëkkati ay yére mi ngi nii di tourné ko toog ko jóg ko taxaw ko wëndeelu seen maam moo doon def nii mu des ci net bi sët yi di ñëw ku ñëw di ko gis loolu lu doy waar mag mu taxaw di fecc ñu lay filmé ci ngénte wala ci céet bu yemoon foofu baaxul de bon na waaye bi ci gën a garaaw nag mooy di fecc ci lu ñuy tuddee munasabaat diiniya te ad diinu minha bara ka baraati xamisu yusuf min dami zi ñëw ne la ci turu diine la ci turu diine tuddee ko léeg-léeg terme bi ñuy wax xumb te dagan te diine moom lu dagan a ci am lu xumb amu ci ñuy tëgg ko fecc di tëba ko dal ci turu diine di tashwih di yàq image yu diine di tëgg ak fecc loolu day waar la bal tey lépp lu ñu tuddee mu naasa ba diine ci réew mi dañ ciy fecc xool ko boo ko xoolee ah dañ ciy fecc góor ñaak jigéen ñi wala dañ koy cereel sax ay way xaas léegi loolu nag loo xam ne lu doy waar bokk na ci ba tey mooy saddu turuqaat li ajlil munasabat al usariya al xaasa fii ñaata ngay jël benn mbedd Dakar daw ak sa oto wala nga jël taxi wala nga dugg nangam jékki-jékki ñu baare mbedd mi pour seen programme mu famille benn famille ñoo baare mbedd mi seen bopp koñ ñu baas digg mbedd mi yow nga dugg ba ci biir arrière wala nga nar a wëri léegi soo xam ne oto boo xam day wëri far fa mu doon wëri mu ngiroo fa far ngiroo dugg ci biir suuf si daal di fay foncé ñoom ñoo ko yóbbee nga gis oto bi wëri far mbëkk nit nga gis oto bu arrière ci arrière yi mu mbëkk mu mbëkk beneen oto far ñoom ñoo ko yóbbee ak googu yëpp tey fii xamuñu ne acharia milkun am la mooy bien public la mais du milkun xaas da ngay am sa cant baare mbedd mi sa ngénte nga baare mbedd mi sa céet nga baare mbedd mi léegi nit ñi ñoom bu ñëwee mbedd mi tey yaa ko moom ku bëggoon a àgg buntu këram day wëri yoon bi moo gënoon a gàtt fa mu jëm day wëri loolu aada la ci Sénégal aada la ku am sa programme mbedd mi ngay bâche duñ dem ay loué ay saal defee fa munaasabaat yi déedéet mais mbedd bi ngay teg te kenn du dara kenn mënu ci dara parce que dem na ba nekk aada da ngay jàng mbedd mi ngay bâche te yow jàng yi yow la concerné concerné wul yëpp loolu bokk na ci yi nga xam ne yu doy waar mbokk yi bokk na ci aada yi doy waar Sénégal nag moom nga xam ne kenn xamul lu muy nuru mooy tanzimu dikril jamaa yi leelatal jumaa leelatal jumaa fi turuqaat wa istixdaami mukabiraati sawt wa sarxu tiwaal alleyl summa isaaju nnaas kullu dalika bismi diin guddi ajuma takk ay haut-parleur du yuuxu ci mbedd yi bismi diin guddi ajuma léegi ñépp xam nañ ne aada la alxamis bu jant bi sowee am na koñ yoo xam ni boo moytuwul boo manqué nelaw ba fa fanaan dama wuti fa fanaan dañuy yuux ba fa ñaar takk haut-parleur yi def ko nag titre def ko titre da jàpp ne lu baax la jaada siya lan la mooy da ngay lor la darara wala dirar da ngay lor say mbokku jullit am na ku feebar am na ko xam dafa liggéeyi woon moom dafa fanaan wala dafa liggéeyi bëccëg bi wàcc ci ngoon gi bëgg a nelaw guddi gi xëy liggéeywaat yaa ngi koy tere nelaw am koo xam dafa am réunion am koo xam dafa am dars di jàngale am koo xam dafay jàng sax ci internet am an board la nekk di jàng yaa ngi koy déranger soo yoon nekku ci am koo xam ne biir këram mënul wuy téléphone day day day day fàtt nopp bii tëj buntu tëj fenêtre pour mën a wax téléphone loolu lépp yaa ngi ko def bismi diin loolu aada bu bon la tey boo xam ne Sénégal ajjuma ci guddi foo jaar ay nit a ngi taxaw di yuuxu te ñooñu taxaw di yuuxu dañ ko def bismi diin da leen di romb yow julli ji gee ñëw fekk leen ni yuuxu julli ji wuñ gee julli fajar bokkul seen programme boo moytul suñ paree ñoom dañuy tëdd nelaw biddanti wala yow nga julli fajar ñëw fekk leen ñuy lem seen i bagage julli ji wuñ fajar loolu bokk ci li nga xam ni paradoxe la bokk na ci ba tey mooy adamu tazawuj bayna baadi afraadi almujtama bi xujjati ixtilaafi alqabail mooy fii Sénégal am na fi ay famille yoo xam ne soo fa bokkul yaa ko jigéen ki lu ngeen bëggante bëggante duñ leen ko may xam ngeen loolu ci misaal bu dee ñun tugalóor yi boo nekkul tooroor nga ñëw ci tooroo da bëgg fa jabar ba moytuwul du xaw a am kon léegi mi ngi changé modernité bi am nii ak alwaayu diini bi di yokk mi ngi changé yu bëri mais teewul am na ñoo xam ne ba léegi ay muhaafizoon lañ ay conservateur lañ affaire yi ñoom la misaasa kenn du ko laal fi ñoom ñoom moo gën a fort ci ñoom diini la misaasa kenn du ko laal ñoom jaral na leen ñu dogoog seen doom mu dem ñu dem jaral na leen mais boo bokkul ci xeet gi duñ seeg yow duñ seeg yow mënoo fexe bañ may la loolu yàq na fi lu bëree bëri indi na fi ay yàqu-yàqu yu bëri ci mujtama bi mooy baara ay nit ñu bëggante ci xujjane bokku leen xabila bokku leen xeet bokku leen deret bokku leen nàngam nga romb ko léeg-léeg kii ñeeño la kii géer la kii géwél comme ni mu tasaaroo loolu ci wolof yi ak ci yeneen xabaar yi loolu ci aada yi nga xam ne Sénégal la aada yi bon la donte nag jàpp naa ni ala wajhil inqiraad wal indiras mi ngi dem ndànk-ndànk parce que ñaar yi nekk amaama bu moo tax mooy at tamaddun wa taxaddur bii di am muy modernité bi ak civilisation moderne bi beneen mooy alwaayu diini mooy nit ñi ñi ngi jàng diine muy leer seen bopp am na yoo xam ne kenn mënu leen ci dugal am na ñu bokkoon ci famille yooyu bàyyi nañ ko ngir diine leer seen bopp diine moo leer seen bopp loolu mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dëñ bokk na ci ba tey mooy ci aada yi nga xam ne yu bon la mooy attahawud fi fi fi fi fi sala wa adama xuduri salaati aljamaa fi lmasajid lada kathiri min alshabab yow xoolal koñ di nga dëkk boo julli ji tisbaar ñaata jeune ngay romb ñii di babi ñii di werante ci mbër mi moo ko mën mënu ko dina ko dóor du ko dóor dina ko daaneel du ko daaneel ñii di werante ci match football ñii di werante ci basket ñii di werante ci politique nga julli tisbaar génn jàkka ji dem sa kër añ naan ataaya noppalu du julli ci waat tàkkusaan romb leen pareegul ñu ngi werante yëguñu ne ñoom dañu war a dem julli ci jàkka ji pour ñoom jàkka ji pour paa yi la ak ibaadu yi aqli boobu lañu am non kii ibaadu la moo tax muy dem jàkk yow lan nga lu doy waat shabaab yi bëri duñu dem jàkk même bu ñuy julli dañuy bàyyi ba après waxtu bi ñu dem seen kër fay loolu musiba la ñenn ñi ñoom julli wuñ far bokk na ci ba tey mooy li ñu miin ci suñu société bi Sénégal mooy xuruju nisa kaasiyaat aariyaat bila hijab jigéen ñi génn nii yaramu neen teg duñ muuru loolu ñu dañoo dem ba miin ko suñu société mu nekk aada mais shay'un muharram jigéen warul génn te muuruwul mais Sénégal pour ñoom ngi génn war a muuru mooy ibaadu mais jigéenu jullit warul génn këram ay bëti jàmbur di tege ci yaramam te muuruwul aada sëy ala ci mucc moom te aadaat yi ni ñuy soppee ko dafa gaaw Sénégal ci année quatre-vingt-dix yi rek man maa ngi fàttaliku année quatre-vingt-dix yi jigéen sañul génn ci yenn boobu xëy na Dakar te ci biir Dakar lay moom mais jigéen génn ci mbedd sol pantalon da ko doon ruus su gisee kilifa day daw àbbu sër wodd xoolal fi ñu agsi ah mini dañ ko daan dañ la daan yuuxu effectivement ku soloon lu gàtt bu génnee ci mbedd mi xale yi dañ la yuuxu loolu ñu bëri fekkee nañ allah almustaan bokk na ci ba tey mooy fii Sénégal yenn gox yi yenn gox yi pour nga nekk fa imam daa am sant boo yor soo yorul sant bi munoo fexe ba nekk imam fii Sénégal yenn gox yi pour nga nekk imam ci yenn jàkka yi daa am ci xeet booy bokk loolu misaal bi ci gën a rëy mooy grande mosquée jaamiul kabir fi Dakar am na xabila boo xam ne soo ci bokkul munoo fa nekk imam soo xam ngeen loolu grande mosquée bu Dakar bi bañ ko créé ba léegi ñen ñen ñoo ci jiite xeex bu mujj bi ci amoon du xam ngeen ko boo am loxo boo bokkul munoo munoo bokk imam grande mosquée bu Dakar parce que bokkoo fa yéel kayit yi nee na lépp nekkal muqriul qura taxul nga nekk imam bi parce que am na foo xam ne bokkoo fa léegi loolu diine la kooku aada sa yàlla léegi suñ demee ba xabila boobu atfahu rajul wa aswauhum moo fi des nag xamul ku xamul koo xam ne mënul jiite kenn gën a suufe gën a doy waar ñëpp far la force da nekk imam loolu musiba la musiba la loolu tey boo demee ci janub janub yenn dëkk soose yi diine ci seen dëkk yi soo bokkul ci famille sàngam doo fi wax diine doo fi jiite loolu mawjud mawjud fil janub mawjud tamit ci ñun ci sima ci yenn manatiq pulaar yi naam aha naam maaruf loolu da dangay sàqami sama lañ ci waaye maa ngi ñëw fii Sénégal am na ñoo xam ne yenn sant yi boo ko yoree doo bokk ak ñenn ñi almeer fu ñu lay suul aada la ci yenn xabaayil ñoom seen xabila dañoo am seen almeeru bopp xaas duñ leen suulandoo kenn ni mu ko waxee wala mawjud fi baadil manatiq bëri waane fii Sénégal fooy dem gis almeer boo xam ni ay almeer yoo xam ni liñ fa suul matul fukki nit gisu leen ko ngandam almeer ñu warale ko mais liñ fa suul matul fukki nit boo laajtee ñu ne almeeru famille sàngam la loolu am na Jurbel almeer yoo xam ne man xam naa ko ci booru route de Dakar bi am na Saint-Louis Dakar gi fii ci Pikine am na fi almeer bu mel noonu fii Yoff fi ñuy wax Yoff Tongor c'est pas n'importe qui lañ fay suul almeer Yoff Tongor bokkut ak almeer Yoff yi siiw ji fi ñu tuddee baqee loolu ci yenn aada yi nga xam ne am na léegi bi xujjat yi bi xujjat yi maasa dañuy taxsisale ay nit maqbara duna xayrihim ñeneen ñi bokkuñu ci ba ay itibaar itibaar aadiya laysa sariya kon kooku du taxaw bokk na ci aadaat yooyu ba tey mooy respecté naam mel ni une heure de temps la ñu waxoon une heure de temps bi nag des na 4 minutes ah bokk na ci fii ku faatu ñu jàngal la fukki lixlaas ak benn jàngal leen ko fukki lixlaas ak benn léegi maashira tullaab al ilm billahi aleykum sootul ixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad fan lañ ciy waxee amin fan la ñaan bi fan la nekk na sa daaras alaysa kazalik am na fu ñu ci war a wax ñe amin ci ci suratul ixlaas ñe nañ ko defal fu ngi lixlaas ak benn loolu aada la ci Sénégal moom moo tax fii li may wax mbokk yi fii kuy dund gaawal bind sa wasiya bindal sa wasiya wax li nga bëgg ñu defoon la ko ak li nga bañ ñi bañ la koo defal nga xam ne bu ma faatu ku ma defal lii baalu ma la ko parce que fii Sénégal fii mbokk amul sens bu la mbokk sunna yi taxawul wallahi boo faatu duñ la ñaan wallahi allahuma firru warham waafi waafu anhu waa kirib nuzula wasi mudxala loolu bu la ahlu sunna yi ñaanalut mooy saye gaaye leneen lañ lay defal moo tax fii bindal sa wasiya waxal ki lay jullee boo fi jógee ki lay jullee su fi nekkul diw diw diw boobu su fi nekkul na ci kiy tege tànnal juróom bi tartib nga bind ko ci français bind ko ci arab jox ko sa njaboot ñu téye wane ni man lii laa waxal li nga doon bu ma kenn defal lii ku ma ko defal baalu ma la ko adduna baalu ma la ko àllaaxira boo ñëwee dinañ ko lay di ma fekk si lii nañ ma defal lii bu dul loolu da ngay faatu kenn du la ñaanal waaw fukki lixlaas ak benn lañ ñu defal ak yeneen dem waaw yow yow boo boo moytuwul say jëf yu tuuti yi nga am bu la ci yàlla yërëmul ñaan yi waroon a doolee ko sa bàmmeel di leer ba keroog ñu lay dekkal yërëm la allahu mustaan musiba lay doon ñu bàyyi ci xel nit ki nekk bindal sa wasiya mu leer minal aan sinon boo dee cafouillage dina am bokk na ci mbokk yi mooy li ñu gis ci dëj yi dëj nit ku faatu nit ñu ñëw toog lekk si yàpp ñi xiif yàpp yëpp ñëw daje fa di xaar naan añ yi pareegul ñoom luñ sóor ndawal yi lan la nag la wala xar la waaw buñ paree ceeb bi ñu orne ko def ko ay nen dóor ci ay mboq ay tamaate ay concombre waaw suñ paree nit ñi añ ba pare naan ceeb bi neex naag neexut ak daa saf kaane saful kaane ceeb bu dëj te li sharia jàngale mooy ki faatu nit ñi buñ fa dañ ko jaale dem isna'u li ala jaafarin taaman defal leen ala jaafar ñam lan moo tax indahum maa yashghiluhum am nañ lu leen yittewoon lu leen occupé kon dañoo war a def ñam yóbbu leen dañoo war a toog yóbbu leen ñun dañuy xaar ñoom di encaissé au lieu que ñu yóbbu leen dañuy toog xaar di encaissé bu ñu añee ba pare naan ji xaar ataaya lekk la ñu dolli ci njar te ki dee kenn du ko ñaanal moom personnel allah mustaan bokk na ci mbokk yi ci aadaat sa yi yooyu ba tey ci suñu dëkk bi mooy ñenn ñi dañuy jël hadiya Sénégal am na ci yenn kuréel dañuy jël hadiya jox ko seen sëriñ loolu nekk isqaatu zakati alayhim loolu day tax ñoom buñ ko joxee dañ joxe azaka day nekk badil ci ñoom ci zakat bu xam ngeen loolu fii am na fi ñoo xam ni fii hunaaka manatiq ci dëkk bi ñoo xam ne ñi fa nekk duñ joxe ñu ëpp ci borom alal ya dañuy daw joxe azak ay xiyal la ñuy teg xiyal yooyu lan la ñuy def ci seen mooy seen aada sanawiya munzu fatra la la ñuy joxe mooy hadiya la ñuy jox ki nga xam ne nee nañ ci moom lañ jokk ci wàllu diine hadiya boobu ñuy joxe day isqaat ñoom zakat duñ joxe azak gis naa ci koo xam ni 15 ans joxewul azak ci benn jotaay nii rek di waxtaan ak moom ci la ma ko xamal ne ko da nga koy fay yow yaa ngi ci danger bu rëy yow foog nga génne azak azak wàccu la calculeel nga génne azaka bi mu ne ma nag moom bëri na ci ay morom bëri na ci ay morom lu garab ba pare ay nit ñoo ko gëmlu te ci charia yaakaar naa hadiya ak zakat bokkuñu martaba ak zakat ruknun min arkaanil islam wala déet waaye hadiya ruknun min arkaanil islam ba isqaat zakat shay'un thanawi la yusqit ah laa yumkin lii naafila la naafila la tusqitu al fard abadan bokk na ci ba tey mooy jàpp yowmul arbain baada wafaatil mayit yowman mataman sanawiya yatakarrar mooy jàppee bésu bi nit ki faatu quarantième jour bi day nekk bésu dëj saa bu ñëwaatee ñu koy anniversaire diw at quarantième jour bi mat na ñu ne waaw indi ci ñaanal ko ngay jàng alxuraan yow jàng ila axiri ñu saraxe léegi jàpp nag bés bi mu faati woon saa bu ñëwaatee ci at bi dëj la loolu anniversaire la rek wala déet loolu aadale fii Sénégal gis nga loolu ku ko bindul fii sa wasiya ne bu ma ko kenn defal bu ma ko defal baalu ma la aduna ak àllaaxira dinañ la ko defal te du la jëriñ bindu ko mu leer bu ma ko kenn defal parce que du du aada sa yàlla du diine du sharia bokk na ci li ñuy jeexale mbokk yi mooy aadaat yi bëri na de ala kullin dañuy doyloo loolu naktafi bi hadal qadar dañuy doyloo loolu léegi ñu ñëw ci am na aadaat yoo xam ne aada mu baax la mais day nekk mu baax maalam yazhar fiha ad darar tant que lor judduwu ci day nekk mu baax bu ci lor juddoo nag xukm yi dafay taxayur al xukmu yaduuru maa illatihi wujudan wa adaman kon léeg-léeg guddal ci nuyoo sénégalais ñëpp xam nañ ci aadaat sénégalais yi guddal ci nuyoo la salaamaaleykum waaleykum salaam rek dem salaamaaleykum gën naa la gis naka soxna si naka Mouhamad naka Ousmane naka sa ndijaay naka sa papa naka liggéey bi ila axiri yi kañ nga ñëw yaa ngi fan léegi day jël temps cinq minutes dañ ko jël ci yow nga dajawaat ak keneen mu jël cinq minutes nga dajawaat ak keneen mu jël cinq minutes boo moytuwul une heure de temps bi nga amoon gars yi nangu ku nekk dina jël ci yow cinq minutes loolu bu demee bay bëgg àgg ci lor nag su boobaa mën naa mën naa mën naa dugg ci beneen buntu doonte ci almubaaxaat la bokk na ci aadaat yi am ci wàllu lekk ak naan aadaat yi am ci wàllu ci wàllu lekk ak ci wàllu naan yooyu aadaat bu baax la tant que jéggiwul foofu amul itixaat buñ ci am lor nekku ci souvent day des ci li nga xam ne moom mooy nekk loo xam ne lu dagan la bokk na ci ba tey ci aadaat yooyu nga xam ni aadaat mu baax la mu baax mu baax la fa lay dugg ci bunt boobu mooy jigéen buy wuyoo sant borom këram ah am na solo loolu naam al cheikh al kajuri nee na am na solo sa sa sa borom kër sant Diop wala mu sant Cissé ñu woo la yow nga sant Ndiaye nga ne Cissé loolu ci al aadaat al mu baax la amul dara lu koy tere beneen bi it li cheikh bi wax mooy day dëgëral sëy bi wala déet loolu ci jonge yi dagan jigéen mën ko def ci séyam ci la bokk bokk na ci aadaat yooyu mooy jigéen buy nuyu borom këram wala buy nuyu kilifa daal di inxinaa sëgg kooku su fekkee amu ci benn itiqaad benn pas-pas da ko def rek lil ixtiraam su boobaa dara nekku ci su fekkee da ko def rek lil ixtiraam su boobaa dara du ci nekk loolu aada la fii Sénégal wala du aada aada la jigéen bu rombee mag wala romb jëkkër jëkkër mu koy nuyu wala mu koy may ndox jaar ci sant bi daal di sukk loolu fii ci aada bi aada bi loolu boo laajoon ñëpp ci mujtama ni ñu koy firee mooy shay'un yadullu ala al-ihtiram faqat alaysa kazalik loolu la moo tax day dugg foofu bokk na ci wala ñu doyloo loolu nañ doyloo loolu naam ah doy na naam tey léegi bu dee dawaab bi ci nag dawaabitul xukm ala al-aadaat kon loolu mooy masala bi ñuy jeexale li ñu wax woon mooy boroom xam-xam yi wax nañ ci al aadaat ci al jaanibul aqdi jaanibul ilm usulul fiq ba teg ci qaayida bi ma leen waxoon ci al urf wal aadaat al aada muhakkama inaaya ko diraasa ko jox ko inaaya tàmm ibnu farhun al maliki ku ñu xam la wax nañ ci lu bëri al wancarisi ci miyaarul murib wala al murab ñaar yëpp dañ koy wax wax na ci ibnu xaldun ci muqaddimaam nga xam ne muqaddima la ci téeréem bu sii boobu diiwaanul mubtada fi taarixil arab wal ajab wal barbar ila axiri tur bu gudd la wax na ci lu bëree bëri moom it te tarux na ci wax ci lu am solo kon boroom xam-xam yi dañ ko mu aada ji wax ci ñu teg ay dawaabit yoo xam dañ ne pour ñu àtte al aadaat wa taxaalid dañ koy séddale ñetti xaaj bu njëkk bi mooy li nga xam ne mooy li ñu war a xam awalan mooy sharia islam nafsuhu al islam nafsuhu laysa aadaat wala taqaalid islam du aada du ay taxaale du ay aada yuñ miin a def du yoo xam dañ koo fekk roy ko ci nit ñi waaye waxyun la awhaahu llahu ila rasulihi wa anzala kitaaban wa anzala bihi kitaaban waxyi bu yàlla wàccee la ci yonent bi alayhi salatu salaam wàccee ci ab téere islam nag kon bu ñu xamee ne waxyu la aada ñëw nekk ci kanamam manhaj bii lay jël pour jëfandikoo ak moom bu njëkk bi al manhajul ula mooy taayidul aadaat allati taxusu ala mabadia fadila aadaat yi nga xam ne day ñëw di xiirtal nit ñi ci ay principe yu baax wa qiyamin saamiya ak ay comportement yu baax ma a tahzibiha wafqa mabadi sharia boole ko gën koo dëppaleeg njàngaleem lislaam lu mel ni xaqul jaar nit ñi am na ñoo xam ne amoon nañ ko ci àq yu doon doxal ci digganteeg suñu dëkkandoo même avant l'islam boo toggee yekkal ko doo loolu sa dëkkandoo di ngeen di seetante léeg-léeg nga dénk ko sa njaboot l'islam dafa ñëw gën a dëgëral xàqul jaar wala déet bokk na ci ikraamu dayf est-ce que teral gan ci l'islam la tàmbali nit ñi dañ ko daan def min qid min al qidam min qidami zaman nit ñi dañ daan teral gan laata l'islam di ñëw hatta fi shi'ril jahili am na lu koy wone dañ daan teral gan nan fil mishaati nadu al jafala laa taral aadiba fii naa yantaxir kon nit ñi yàgg nañoo teral gan joxe ñam di toppatoo nit di ko jox mu lekk ak ku tumuraankeeg yépp yàgg na waaye lan la l'islam dafa ñëw gën koo gën ko consolider gën ko dëgëral gën ko solidifier gën ko taqwiya bokk na ci musaadatu fuqara loolu am na amoon na fi laataa l'islam bi ñëw boo jàngee ashirul jaahil di ci fekk ay abyaat yi wone al ihtimam bil aramil ah jigéen ñi nga xam dañoo sëy ba tas ila axirihi loolu avant l'islam la woon waaye lislaam dafa ñëw gën koo gën koo dëgëral naka noonee musaaratul garib yooyu yëpp ay aada yu fi nekkoon lislaam ñëw gën ko dëgëral kon loolu avant diine di ñaa ngi ko doon dund mu ne woon seen aada yu ñu xam mu nekkoon aada yu baax ñaareel bi mooy taqwimul aadaat allati taqumu ala wajhayni ahaduhuma sayyi wal axar xasan lislaam day ñëw jubbanti aada yi nga xam ni da ko fee fekk mu am ñaari kanam am kanam am ci aada bi lu baax am ci lu bon lislaam day ñëw dëgëral lu baax li dindi lu bon li ñetteel bi mooy muxaarabatul aadaat والتقاليد الضالة والمدلة التي تتعارض مع ما جاء به الإسلام من من القيم والمبادئ والإسلام day ñëw xeex ak dindi ak jéem a effacé aada yi nga xam day ñëw pour réeral nit ñi sànq leen ba pare safaanoog njàngaleem lislaam ci li mu saxal ci wàllu jikko ci wàllu jëflante ak wàllu melokaan nga xam ne mën naa indi xalal ijtimaa yi sax nag ay jafe-jafe ci wàllu dundin bi mën naa indi ittiraab fi l aqida wal qiyam waaye mën naa jur alfasad wa razila ci li nga xam ne mooy mujtama bi su boobaa lislaam day ñëw daal di koy xeex hada bi kulli xulaasa baada juhdin wa nas nashkuru ljami di sant ñëpp waxtu bi yaakaar nañ ne liñ ñi ci santoon ñu def ko doonte néew na jéem nañ tënk suñu kéem kàttan parce que bëgg a waxtaane al aadat wa taqaalid al sénégalia wala al mawjuda fi l mujtama sénégal yi ci saa waahida daanaka taxawul mën a nekk waaye il fallait que ñu jéem a joxe alxututul arida muy les grandes lignes tënk ko li ci des nag ay tullaabeel ma fi nekk ku bëgg a baax si baax si ku bëgg a dellu ci maraaj yi dellu maraaj yi li ñuy wasiya rek mooy tullaab ilmi duaat yi baaxi suun yi kenn ku nekk war ngaa yittewoo al aadaat wa taqaalid ci suñu mujtama bi ci Sénégal beneen bi kenn ku nekk qabila bi nga bokk nga jéem a xam aadaat ak taqaalid ya fa nekk jéem cee def ay diraasaat ak buxuus mu aalaja ko jox ko société bi loolu bokk na ci li nga xam ni mën naa jur ay njëriñ ci bunt bi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wa salaamu aleykum wa rahmatullah
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu jazakumullahu xayran ya cheikhna Omar ala hadihi al ifada nayira mbokk yi day ñaan borom bi tabaraka wa taala mu fayal ñu Cheikh Omar gën ngaa mati fay te bindal ko lii mu doon joxe fii mawazin xasanaat yi xanaa mbokk yi rek ñu tijji bunt am lenn ci ay laaj yoo xamante ni bii nag bu fekkee am na ak yenn ci ay mudaaxalaat yu bàyyeekoo ci mbokk yi xam naa dinañ ci jël ba ñett ila juróom insha allahu taala te dañ ko weesu ndax waxtu bi mel na xaw naa guddi tuuti ñu pare ci mudaaxalatu al ax aywa alhamdulilah rabbil alamin waaw kon di sant Oustaz Omar ci leeral yi nga xamante ni si indi na ko fii jazaahullahu xayran li ñu ci doon dolli rek ci côté aada yi dafa am yenn aada yoo xam ni xëy na xam naa waxtu wi nag moo xaw a xat xëy na ndax kenn mënta lim yu baax yëpp daf ci am ay aada yoo xam ni maanaam ñun dañ koy xaw a sip jàpp ni lii nii dafay wuute ak diine fekk ni mag ñi bañ koy def jubluwuñ ci woon wuute diine waaye bëgg nañoo tere mbir ma waaye amuñu jumtukaay bu ñu ko teree amuñu tegtal bu ñu ko teree masalan xale du socc guddi par exemple socc guddi dafa daan lëndëm amuñu woon ay làmp amuñu woon lenn luy leeral mun na gaañ kenn kenn du taxani guddi xam ngeen luy taxani uti matt pour taal loolu it dañuy bañ ngay taxan wala bale yu mel noonu ba bale waale sa musiba jaan wala yeneen yu mel noonu daf cee bëri aada yu mel noonu yooyu jar na ñu ràññeet la ko xàmmee ko balaa ñuy tëb ni lii dafa araam lii bidaa la lii nañu delluwaat tuuti tamit ñu xool ni yooyu xëy na mag ñi amuñu woon xam-xam ba naan yàlla nee na yonent bi nee na waaye seeni xel yu rafet lañ doon teree yenn yi ba mu dem ba nekk ay aada jazakumullahu xayran jazakumullahu xayran Cheikh Abdul Ahad génniku bu am am solo la yàlla yàlla fay la tayib ñu ko kon incha allah dañuy jël ñetti soal ci kàttanu yàlla wala ñeent incha allah wa bittaali
barakallahu fiikum masaayik waaw man correction bu ma eh, li ma bëgg a laaj mooy kii bi joxante loxo yi si diggante jigéen ak eh, góor bi loolu tamit dafa siw eh, xaw ma ndax dina dugg si aada sëy ya wala incha allah barakallahu fiik
ewa salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Cheikh Alaa Cheikh Omar yàlla yàlla fay leen waaw man suwaal bi ma doon laajte mooy junj bi ngeen junj ci maanaam jigéen ñi nuyoo yi nga xamante ne dañ koy nuyoo di sukk sukk boobu man dama ci doon laajte parce que dama jàpp ne lépp li nga xamante ni da nga koy wàcc jëmale ko ci suuf rek loolu borom bi subhanahu wa taala moo ko moom te loolu jugee wut ci ñun mu ngi jugee ci côté Angleterre rek yu demee noonu ñoom ñoo koy defal seen buur ak yooyu ndax loolu noonu comme ni ko Cheikh Alaa Abdul Haq Kajoor ni mu ko waxee léegi bu fekkente ne mag ñi dañ ko daan def ngir daanuñ ci woon juble diine mais dañ koy def ngir ixtiraaman la léegi nag teewoon ñu ut beneen uslub boo xamante ne day wuteeg wàcc boobu bu demee noonu jazakallahu xeer
salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ustaz ñu may jaajëfal yow ni jazakumullah xeyra man dama fi am ay laaj nag waaye xëy na dama koy wàññi maanaam eh, maanaam société Sénégal bi ni ñuy dundee benn moo tax dama koy wàññi maanaam société Sénégal bi ni ñuy dundee am na ay aada yoo xam ni eh, ni ñu koy dundee nii daawuñu ko dundee démb ndax léegi bu ñu xoolee dinañ mën a wax ni aada yu bon yi léegi moo ëpp aada yi nga xamante ne mooy yu baaxoon démb ndax tamit société bi léegi ni ñuy dundee est-ce que effacé wuñu li nga xamante ni moom mooy aada yi nga xamante ni mooy yu baax yi fi nekkoon ndax mag ñi suñuy mag amoon nañ ay aada yu baax yoo xam ni dañ daan ko jëfandikoo ci ëtt ëtt tamit jàpp naa ni nit ki fa lay xamee li nga xamante ni moo tax ba du xëtt ab ñàkk ba mën a xam li nga jëf li nga xamante ni mooy lu baax loole ndax loolu ñu ngi koy génn rek barkala si duma saalum saalum
salaamaaleykum wa rahmatulah dama amoon benn tadaxul ak benn question tadaxul bi mooy eh, léeg-léeg dégg nañ fii ñoo xamante ne dañuy dem si dëj yematuñ sax di waxtaanee ay lañ fa togg ak yooyu waaye dañ koy otesal sax nag waaye question bi ma amoon nag mooy eh, léeg-léeg nga dégg koo xamante ne ne ku góor koo xamante ne dara naan man bëggumaa dem si masjid ba parce que imam bu fay jiitee dafay dem dafay def ay mbir yoo xamante ne daa wute sunna te man bëgguma teewoo loolu moo tax euh, man daal loolu moo tax duma dem masjid ba xam loolu doy na pour hujja jazakumullahu xayr
salaamaaleykum man lu may laajte man damay def fuddal léegi fuddal bu may def jamono bi léegi dañuy def euh, comme ni ñu ko tuddee any time léegi fuddal bi dañuy woo ay bongomaan ñu ñëw man ma toog di fuddal ñeenti jigéen ñi nekk fa di fecc ak genre yooyu man léegi sama liggéey yomb nan la ci kii daal.
waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ustaz jazakumullah xayran man damay laaj ci affaire génn bi nga doon wax quoi affaire génn bi génn bi génn génn maanaam génn góor ak jigéen yi ñenn ñu koy def dañ koy layee ni nit ñi bu ñuy takkante te xamante wuñu sëy faa ñu xamante doo ko doo ko sëy mais paradoxe bi foofu mooy parfois nga gis ñu génn ay dix ans quinze ans mais sëy cinq mois sëy ba yàquwaat bu njëkk ba bu ñuy ay yónni sa kër bàjjan ak sa kër nijaay da ngay dem yónni la ko sa kër nijaay wala sa kër bàjjan mayee la sëy bi jaaree fa réussir léegi damay laaj foofu lan mooy problème bi parce que tamit dëgg la takk koo xamul xëy na am na tuuti danger mais est-ce que xamante bi am na benn méthode bu ñu ko mën a defantee saa mu neex a génn bu yàgg.
خلاص انتهت الأسئلة
alhamdulilah yaakaar dañuy commencé ci laaju Abu Hamza Lamine Cissé wax na dëgg bokk na ci aada yi siiw Sénégal mooy almusaafaha benn rijal wa nisa joxante loxo diggante góor ak jigéen kooku aada yi siiw la ba fii soo ko deful nga nii ne waa ji ibaadu la wala déet alors que xadis bu maaqal ibnu yasaar nekk xadis bu bu ñëpp xam ñëw na yaxal ko beneen bi mooy amalu saxaaba loolu la wone beneen bi jigéen ñi bi ñu ñëwee jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que yonent dafa joxante ak ñoom loxo te al mubaaya dafa bokk ci li koy matal mubaaya ci diine mooy joxante loxo tegante loxo daf cee bokk waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam góor ñi ñëw doon jaayante ak moom yépp mooy xadis Ubaada bi ibnu Saamit bi ak ñeneen dañuy dañuy tàllal suñu loxo yonent bi jaayante ak ñun mais jigéen ñi bi ñu ñëwee jaayante ak moom da leen ne jàpp leen lii ma jaayante ak leen lii tudd ay biir kon góor ak jigéen joxante loxo moom sharia xamu ko da koo tere beneen bi nag gars yi te falsu fi ñu ciy indi ay yaa ko xool ba xam ne góor la ak jigéen la loolu wax ju yàqu la ki ngay nuyu di nga xam kan la waaye danañ ko malaaka beneen bi mooy Traoré ah Amar naam nuyoo bi nga wax jigéen ji sukk di nuyu borom këram ak yu demee noonu naam waaw foofu li ñuy xool mooy al umur bi maqasidiha aw laysa kazalik al umur bi maqasidiha jubluwaay bi lan la beneen bi gis nañu sharia foo xam ne façon sukk boobu ibaada la gisuñu ko sharia te jaamu yàlla yi léeg-léeg suñ nuróowee ñaar bu amee lu ñuy def ci aada mu ñëw nuróog jaamu yàlla dañuy xool xasd bi ci ñaari ban la lan la ba pare beneen bi su fekkee ne booba dafa ñëw pour nara màbb bii ñu door kaa mën a tere mais loolu dajewul ci nuyoo bi moo tax borom xam-xam bi ci fatwa yëpp dañ ko dagal beneen bi mooy ki wax ni aada yu yàgg yi benn làkk nga fi wolof yu yu xóot saalum saalum moo xam bawol bawol kajor kajor làkk nga fi nee nga aada yu yàgg yi daf ci am yoo xam dafa commencé soppeeku waaw ulama al ijtimaa dañuy wax ne al aadaat tatatawar wa tatajaddat aada dafay évoluer aada dafay évoluer bu njëkk am na lu ñu doon nuyoo nuyoo bi changé na ah am na lu ñu doon teralee gan bu njëkk ba léegi ñu ngi teral gan waa teral gan gi évoluer na changé na bu njëkk jigéen am na lu ñu ko doon waralee buy sëy léegi ñu ngi waral ba léegi mais waral gi évoluer na bu njëkk lu ñu doon waralee mooy saret wala nangam mais léegi est-ce que saret la ñuy waralee oto la ñuy def oto yi rang jigéen ñi xott yu nuroo góor yi xott yu nuroo ñuy korne jëm jëm fañ jëm kon aada day day day day tatawur waaye yata jaddat tata jaddat fi nafsil am qayda dafay dafay bees di gën a di gën a évoluer di gën a avancer loolu moo tax am na aadaat yu bëri yu fi nekkoon daf ci am yoo xam ne aadaat yoo xam ne aadaat maxfiya la dafa làqu lan moo ko waral mooy tamaddun bi ak taxaddur bi am ak alwaayu diin yi moo ko suul mooy nit ñi soxlaatuñ ko nit ñi soxlaatuñ ko yëkkatuñ ko bëggatuñ ko am na aada yoo xam ne aussi te maddun bi moo ko imposé nit ñi tey Sénégal par exemple boo gisee fast food dox fi jaay fonde jaay cere dox guddi mooy kër yu bari toggatuñu reer alors que li doon aada sénégalais yi mooy ñëpp dañuy togg reer reer dañ koy togg ci kër gi ngay ndékkee kër gi ngay añee kër gi ngay mais léegi kër yi presque añ lañ fay def ndekki yow da nga yàkkam suba teel génn jugu ci boutique bi jënd mburu def ci chocolat wala ndambe jaar fee jënd benn kaasu café bu fukki dërëm wala bu 100 franc ci oto bi nga koy lekk wala ci yoon bi jënd mbuusu ndox naan fes añ moom kër gi lay fekk reer nga génn xool fast food bi loo fi mën a am wala ndax mën nga am fonde wala cabe wala déet moo tax aada dafa am yoo xam ne modernité moo koy imposé yii yi yi génn am yoo xam ne modernité mooy imposé ñu dem am yoo xam ne diine avancement diine ci gox bi mooy tax yooyu suul yéen ñi daal di suul bu dee nag soxna si li mu laaj mooy bàyyi julli ginnaaw imaam loolu dafa war a nekk loo xam ni waru tege ci bànneexu bakkanu nit ki ba dafa war a nekk li uzrin shariyin maqbul mooy ngànt loo xam ne lu wér la ci sharia mooy imaam bi dafa nekk saaxir boo xam ni wér nañ day seex te loolu aussi léeg-léeg mbokk yi juum ci fii parcelle unité 1 jëm golf sud unité 1 boobu ñu fay dëkk xaw na yàgg karnaa maa Oustaz Mor am na mbokk yi fa newoon am benn imam boo xam ni dañoo jékki-jékki rek gàkkal ko ne duñ julli ci ginnaaw man amoon na ñun amoon na jàkk ji ñu gën a jege fa lañ doon dem affaire bi indi fa balbala daje ba imam bi daanaka bu mënatul supporter mbokk yi yenn yi fa des sax di ko jullee ñun ci ay gëstu ñu gëstu ba xam ne imam bi moom du sihir parce que nit ñi dañuy jaawale sihir ak xuraafaat moom du sihir mais ay xuraafaat lay def xuraafaat yi mooy lan mooy bu fekkente ni yow da ngaa nekk fraudeur da ngay dem Gambie wala Mauritanie di wuti ay bagage gars yi nga bañ gars yi jàpp la da lay bindal commencement yaasin wa jaalna min bayni addi aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axshaynahum fahum laa yubsiruun ah yooyu ñi jaar daara xam nañ am na ah yoo xam ne yooyu lañ lay wax su ko defee fahum laa yubsiruun duñ la gis léegi bu fekkee ni jigéen la joo xam ne day matu mu bañ matu bi matu bi métti ah yooyu di wax ci Mariam waaw wala suma sabila yasara ñu bindal la ko léegi loolu est-ce que sihir la léegi foofu ittihaam nit ki ne saahir la ko parce que sihir moom kufur la loolu leneen la mooy nit ki dafay jëfandikoo ay awraat jëfandikoo ay shayatin loolu mooy sihir mais ki nga xam ne ayat quran yi lay jël di def loo xam ne ma anzalallahu biha min sultaan loolu xurafaat la waa ji nag loolu la doon def bala tabayun moo tax léeg-léeg tey ci dafa baax day gis waa ji def ay mbir xamagoo lu muy def nga ne saahir la fekk ne li muy def xuraafaat la gën a jege ko seer ak gul ci martabatu seer jigéen joo xam ni da ngay feral nga ñëw mu bind la xul yaay kaafirun ci mbur mi ne la jox ko xale bi su ko defee nangam ak nangam ila axir yooyu la ñuy def mais loolu loolu xuraafaat rek mais ak gul ci seer kon day fekk ne imaam bi dafa nekk saahir boo xam ne leer na wala mu leer ne imaam bi am na fisq ku ne ci moom gu wér boo xam ne dañ koo jàpp muy njaam wala ñu jàpp ko mu sàcc. ah yoo xam ne day iskaat ak imaamam su boobaa nit ki bañ a jullee ci ginnaaw mais léeg-léeg ñun ñu am problème ñun la wallaahi yaa am benn soupçon ci di wala neexu la wala mu leer imaam bi xera am wéru mënul jàng day def lax na jëli boo dee jàng wala sawfa yu'tika rabbuka wala sayfa yu'tika rabbuka lay jàng te sawfa ak sayfa wuteen kooku su boobaa mënul jàng dañ ko imposé ni ñu mu nekk imam te fii ñun ñëpp xam nañ Sénégal mu ngi dekk imam yaa fi mag wala yee sa bàyyi moo moo moo sosoon nga ñu mu nekk imam su ko defee yooyu mooy tax mais sukkandiku ci ay awhaam rek wala ay sukkuka ki zunun yi nekk sa bopp nga ne du ma julli ci ginnaaw parce que nangam te loolu bu ñu laajoon burhaan mënoo ko indi su fi qaadi shari amoon qaadi shari woola ne la indi baraaji ji mënoo ko indi nit ki day éviter loolu te lu bëri ci mbokki dañuy dal ci loolu bokk na ci mooy fuddan fuddan moom li ñu ci xam ci lislaam mooy dagan ya Aïcha radiyallahu anha nee na man daaw moo ko def lu tax yonent bi bu ko doon xet bi abu xuhaafa bi mu ñëwee sikkim bi weex yonent bi alayhi salaatu salaam digal ne ko ne ko lu teewoon nga fuddan ko saxaaba yi daan nañ fuddan loolu gis nañ ko boo delloo ci seer alamu nubalaa ñu bëri boo jàngee seen siira bokk na ci liñ bëggoon mooy fuddan moo xam ci góor ñi wala ci jigéen ñi bokk na ci ibnu sirin ak ñeneen ak fatima bintu sirin kon sax na ci sharia mais nag façon bi nga ko waxee moom dafa rax mooy fuddan boo xam day ànd ak ay xam nga nu tuddati bongomaan loolu ban façon fuddan la ak lan mooy xasd bi maanaam nit ñi di xalam di riici di dëgg nit ki di fuddan léegi way way way am ci jaxasoo góor ak jigéen am ci fecc am ci loolu laa sot yi ci rax ñoo tax mu xaram mais jëmmi fuddan kese rek moom loolu may nañ ko jigéen mu def ko waaw moom mi liggéey fuddankat la waaw liggéey bi dagan na environnement ak mbir yi ko accompagner mooy problème bi pourquoi ñu bëgg laa imposer ne yow yow mi yor sa métier booy fuddan da ngay ànd ak ay bongoma ki la koy imposer ne ko man mën naa la fuddan waaye bu ci loolu bokkee nga seeti keneen nit ki li ngay liggéey aussi da nga ci am fulla waaw bu indee bongomaan yi moom bu fekkee bongomaan yi fële la ñuy nekk di bongoo ñëwuñu fi ñuy fuddanee xeer mais fi nga nekk di fa fuddanee moom ñu ñëw di ànd ak yow di bongo yow nga toog di déglu bongo yi tëgg ak fecc yi wax yu salte yi ñuy wax ak ila axiri yi déedéet naam tatouage tatouage bu fekkee ne buy marqué ci yaram bi du dëñ la borom xam-xam yi dëppoo nañu dafa xaram bu fekkee ne du dëñ boo ko effacé yu dëñ dafa xaram loolu nag lu ma tax xam ne tey jeunes yu bëri ñu ngi tatoué seen yaram góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi naan sama si sama jëkkër ko bëgg ñii def ko benn benn lug dessiné ci yaram loo xam ne du dëñ boo ko jugee fomp luñ boo ko bindee dindi dëñ dafa xaraam fan yi gis ngeen benn vidéo Mike Stace benn britannique boo xam ni producteur film la woon dem na ci xaram bi aji màkka lu ko jiitu mu umra mais li ko métti bi ñu koy interview muy jooy mooy tatouage bi ne ci yaram bi mënu ko dindi yaram bi yëpp ba ba bët yi da ko tatoué ñu wane ko mu armal ginnaaw bi mu aje màkk ba ñu koy interroger parce que dafa am télé bu ko topp bu reex la bi diggante Londres ba Saoudi ànd ak moom ci reex la bi ak ñi nga xam ne moo leen yóbbaale woon mais li ko gën a métti nee na mu nekk jullit nii tatouage bi feeñ ci yaramam nii carrément te mënul génn loxo yi yëpp nekk ay tatouage loolu dafa nekk loo xam ne saqaafa xarbiya la te ñun ci suñu diine daf cee bokk mu xaalafatuhum ci mbir yi nga xam ne ixtasu biha loolu dafa xaaida la boo xam ne xaaida la ci suñu diine du dañ li ñuy jeexale mooy naka la ñuy xamee jigéen ci wàllu sëy abu salim du loolu l'islam moom li ñuy wax isa jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu koo gërëm diineem ak jikkoom nit ki mën nga kaa xam ba pare mu am jikko ju bon parce que ñaar ñuy ñaar ñuy labatante dañuy muusante wala déet la gaa ñi jaaru leen ci sa Muhammad gaa yi dañuy muusante tam ku nekk da ngay am looy nëbb wallahi génn leen 10 ans dina am jikko boo dul xam ci ku góor ki génn leen 10 ans ku jigéen ki mënoo ko xam dina am loo xam doo ko xam ci moom parce que yow saa boo ñëwee day reetaan kontaan du mer waxtaan ba nga dem yow boo ñëwee tamit kontaan reetaan waxtaan wax jàmm ba nga dem loolu mën ngeen ci xamante fii ba 10 ans wallahi mën ngeen ci xamante mais ba ngeen nekk il faut ñu bañ a tricher ñu ñu ñu ñu ñu ñu pragmatique ci suñu biir instant yooyu ngeen di daje ku nekk day nëbbu jikko mais ci dund bi bu ngeen demee nag ba mu Aïcha am waaxee taxaw nag réalité ñëw ah ci ngay xam ci ngay xam nit ki soo yeewoo ne ko ceeb bi jeex na ban comportement lay am facture courant bi ñëw na ban comportement lay am gaz bi jeex na ban comportement lay am ci ngay xam nit ki soo nekkee ak moom wuy téléphone yu bëri ban comportement lay am mu ñàkk ñàkk attention ci njaboot gi ban comportement lay am ci ngay xam boo amee gan ban comportement lay am boo waree dem xew yow en tant que ku jigéen ban comportement lay am soo guddee àll ban comportement lay am boo toggee lu naqari ban comportement lay am loolu ci labat mënu ci fekk donc système bu njëkk ba it dafa am ay muxaalafaat te wax naa ko fi sànq mooy seeti ku jigéen ki mu ne tegal ataaya tegal la njar papa ma ngi am toog ne ku ñëw ci kër gi ñu ne ko diw mooy mooy ngoro diw ngoro lañ doon wax ngoro diw mooy ngoro diw nga taal sa rajo teg ay musique léeg-léeg ku jigéen ki daka daan feccal ila axiri yi yooyu dafa am ay muxaalafa il faut mbir yi ñu teg ko ci al mi'yaaru shar'i teg ko ci misaanu sharia rek suñ ko defee mucc suñ ko deful nag moom dégâts yi dafay bëri te moom la ñuy gis bu baax a baax a baax wallahu taala alam naam
wallahi mbokk yi xam ni ñu xam ne ñu fi toppoon ak question yi di jeex ndax moo bi dafa yaatu te bëri ay bànn bantas ala kulli xaal ñoo ngi delloo di sant suñu sëriñ Cheikh Omar ko ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yokk ko xam-xam te gën ko defal alfatxu hada wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain
Jazakallah Cheikh Omar.
ما شاء الله بارك الله